صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله الكريم ونحن على هذا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من داملني آه بربيني قدنا في اللول لول لول ما نقلل نبدل الزيار جسبرك صومي باحنا Euh, di am mbégte dellu siwaat si jotaay bu tedd bii euh, di fi fekk mbokk yi maa ngi gis euh, gaa ñëpp macha allah comme ni ñu ko waxee woon rek ñu ngi am yéenewu dugg ci lenn lu am solo lu ama am solo muy leeral benn pàcc bi nga xam ne ci diina la bokk te jullit yi réere ko lool te mu waroon nekk li nga xam ne day nekk yi te jullit yëpp loolu

am na ñi nga xam ne kenn ku ci nekk ak nu mu ko appréhender euh, baax na nag ñu leeral ko euh, fësal ko ba liñ ci doon ragal leer liñ ci doon nëbb mu leer euh, li ci gaay di bañ mu leer te man jàpp naa ne bu leeree si bopp julti rek incha allah julti ñoo koy exiger pare imposer ko donc cinq épisodes laa ko bëgg defee macha allah je vais le faire comme suit Euh, premier épisode du je vais le consacrer à l'introduction on va fixer les les bases euh, bases philosophiques idéologiques euh, bases doctrinales bases pragmatiques Il a xam dans leur culture tu l'islam. islam premier épisode deuxième épisode je vais le consacrer à la longue marche de l'islam donc l'islam bi nga xamné depuis jamono adam alayhi islam muy la première réalité islamique bi dox ba jamono yonte yàlla isa bi xamné mom khatma la mom ci mom khatma la euh, yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo andi ben xarkanam muy l'islam prophétique muy l'islam muhammadien ñu jogé ci l'islam muhammadien dugg ci l'islam kalifal l'islam bi nga xamné euh dox na ci digënté abbakar Sadiq euh, Umar ibn Khattab Ousmane ibn Affan

Euh, ça fait maintenant plus d'un millénaire après l'islam drastique, on n'ak, ñu gis après l'islam impérial l'islam bi empire avec les attributs d'un empire dans un moyen âge bi nga dafa am sa réalité historique bi nga buñu ne solul lunette rek du ñu comprendre ce qui s'est réellement passé aujourd'hui l'islam sous la colonisation ak l'islam après la révolution ak lépp lu mu jur ci ay jafé jafé on va le revoir, Inch'Allah, dans le deuxième euh, épisode bien, Inch'Allah. la troisième euh, fas yéene le paradigme islamique dans ses caractéristiques et dans ses principes Là, moi, le paradigme islamique Aujourd'hui, il y a beaucoup de paradigmes qui ont été invoqués. ils ignorent foncièrement sax li ñuy wax paradigme Ils parlent de système mais ils ne parlent pas de paradigme donc euh, on viendra dans le fond de ce qu'est le paradigme islamique Qu'est-ce qui fait son authenticité Pourquoi la seule solution aujourd'hui par rapport à la crise, euh, je vais dire, multiforme, euh, multisectorielle, généralisée, bien que adoune bi donc euh, paradigme ils vont revendiquer ce paradigme là parce que quatrième épisode on va le euh, euh, passer ci leral islam politique bo nga xam jaar-jaar yi mu am yooyu yëpp naka lañ ko jëmmalee Sénégal ndax Sénégal il y a eu des expériences de mise en œuvre de cet islam politique boobu donc dinañu andi quatre étapes yi nga euh, islam politique jaar na ko fii Sénégal depuis la révolution bu Malick Sy Boubou Malick Sy Boubou bi nga xam c'était dans le Bundu au 16e siècle après révolution boobu euh, ñu jaar si révolution bi nga xam ne wax la révolution Toronto, wala avant la révolution Toronto, sax la révolution Toubnane la révolte des marabouts dans ce pays là bi nga xam ne ngi am ci 1671 à peu près jëm 1678 ak naka la amee jeexit ci ay royaume yu nekkoon fii Sénégal royaume yu bëri euh, bi nga xam ne macha allah euh, am nañ ci ay jeexit y a eu des chutes y a eu des rois qui ont xam ne Daniel.

donc c'était en 1776 c'est presque un siècle après la révolution toubnane euh, ñoom doxal ko euh, ce qu'on appelle un régime politique bu l'islam ils ont appelé ça l'almamia euh, on va voir lan almamia donc lal c'est c'est fondamental. Théologique d'abord juridique programmatique économique et sur l'angle de la gouvernance surtout bien nous daf on va le voir au-delà de la révolution euh, Torodo bi nga xam ne ñoo dindi ce qu'on appelle les euh ñam ci la Sewan Bal on verra nak la forme la plus aboutie de ce qu'on appellera l'Almamia dont ça a été incarné dans le salon avec l'Almami Mamba Diakhouba qui c'était presque au 19e siècle donc euh, dinañ ci dugg bu baax ci quatre expériences là ak lan motax euh bo ba légui euh, sa peine ba paré dafa bloqué Sénégal ndax ñuy neub lu gëna a bëri suñu histoire war naa si ñëw incha allah euh, su may abordé parce que si thème bobu bëgg naa waxtaanee kenn ki xamé Sénégal dañ ko réeré lool muy ma ba Diakhou Ba donc euh, macha allah et cinquième épisode bi nak je viendrai sur le défi les défis actuels de l'islam dans ce 21e siècle et su boobaa nag j'entrerai dans le fil de ce qu'on propose en tant que euh, libération ou la solution au islam donc par rapport à la politique économique aujourd'hui nous sommes dans une dimension bien on a des systèmes d'économie marchande des systèmes d'économie monétaire aujourd'hui on peut pas parler d'islam sans pour autant régler la question des liens entre le marché et l'islam on peut pas parler d'islam sans pour autant régler le lien entre la monnaie quelle la vision monétaire de l'islam la monnaie la la on on peut pas parler aujourd'hui c'est euh, jamono sans nous régler l'islam, n'a réglementer la gouvernance avec les institutions L'approche la la institutionnelle euh, institutionnelle de l'islam euh, l'approche, euh, je veux dire organisationnelle de l'islam quels sont les principes de base de l'islam islam L'islam lan le islam réglewul bàyyi ko nit yi ñu doxal ci un consensus lan moy li nga moy les règles yi nga islam mom joxuko doomu adama l'islam est ce que accommodé wu ak ce qu'on appelle la démocratie ndax islam dafa démocratique ndax islam nangu na république aujourd'hui au sens moderne du terme islam ban lien la avec ce qu'on appelle le positivisme jamono etc. ni euh, etc etc. euh, lu islam nek un intrus dans ce siècle là lu tax bañ islam jamono bi ñi koy teg baaraamu tuuma diko ko joxoñ ils sosal di yak deram et di sax avec des fois la complicité passive de ay musulmans yi ils n'ont absolument rien compris tu vois les interroger sur l'islam de il n'a absolument rien compris donc euh, on verra comme euh, cinq épisodes par rapport à l'islam politique aujourd'hui euh, vraiment ñun ngi Sénégal Sénégal aujourd'hui parti politique bi la pensée islamique rassemblement pour la vérité ci parti boobu man maay secrétaire général bi ñun dañoo gëm ni alquran mooy suñu constitution lu ñu gëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu unique modèle loolu la ñu gëm dañu gëm ni euh, yàlla moom kese ñu ilif te moo ñu moom dañoo gëm tamit ni charia euh, lañu ñu bëgg doxal ci biir réew mi dañoo gëm tamit ni le système de gouvernance actuellement moo feebar islam am na solution pour régler ko ñun nag nekkuñ ci ay rêve ay théorie lu ñuy wax nii lu ñu xam la lu ñu mën a leeral la lu ñu mën a jëmmal la donc loolu xam naa ni dañ ci ñëw ci fan yi di ñëw incha allah da gën a leer ci bopp Sénégal yi waaye liñ jàpp daal bi juróomi mbir yi daal mooy li xam ne moo ñu ñor ñun quand on parle euh, d'islam politique kon tey moom c'est une introduction bi nga xam ne on aura la chance gën a yaatal Euh, Nous bàyyi sax ay interaction mais yeneen quatre épisodes yoom du am interaction on va bloquer les messages ba nga xam ne képp koy tourner du ko gis comme ça on va exposer ndax euh, dañoo toll jamono bi nga xam ne bu ñu leeralul l'islam noonu l'islam yi ñooy waxal l'islam et ñoom bu ñu waxalee l'islam rek mal l'islam ba pare yàq donc on est obligé de bien communiquer et de clarifier euh, avant que les gens communiquent à notre place ndax ils l'ont longtemps fait depuis des décennies gars yi ñuy communiquer lislaam di xuuxal jullit yi ci lislaam di wax jullit yi leneen lu dul islam euh, ba jullit yu bëri sax dañoo dem ba mujj réer ci seen diine ñoom euh, mu am lu bëri nag ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent yor ay njàpp jamono bu ne sunna la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg la euh, soccu jël soccu di soccu sunna la sunna mooy lépp li xamante bi mu ko doon def sallallahu alayhi wasallam jamonoom wala boog ñi def ko ci kanamam mu agréé ko wala boog mu wax ko incité ko lépp ay sunna la donc euh, waaye am na sunna yu gën a mag yi nga xam ne aujourd'hui jullit yi waxtaanewuñ ci bokk na ci sa la sunna politique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na sa sunna économique maanaam ci wàllu iqtisaadiya lu naa si ñëw parce que si biir cinquième chapitre boobu bëgg naa indi benn benn benn benn parenthèse bu mag a mag bi nga xam ne benn section bi xam ne on va parler de iqtisaad islam bi maanaam l' économie islamique nga xam ne économie boobu macha allah. Euh, naka la mën régler aujourd'hui les problèmes ñu am avec la super inflation bu xam koy dund avec euh, aujourd'hui nous, pauvreté du creuser avec l'inégalité nu mu gëna a mu exacerbé un monde bi où il y a pas d'équité aujourd'hui il y a pas de démocratie sur le point économique démocratie économique ça euh, la pauvreté c'est une fabrique on a une fabrique de la pauvreté donc euh, naka la islam moom tegee mbiri ci yoon ba kenn ku nekk gis sa bopp ci pénc mi ndax euh, en réalité islam moom dafa indi ay doomu aadama def leen xalifu yàlla ci kaw suuf en tant que ay vicaire de Dieu sur terre lieutenant d'Allah subhanahu wa taala euh, suuf bi ne leen yéen a ko moom daf leen ko dondloo te dondkat bu mag bi sax ku ñu wax alwaaris kooku Allah la subhanahu wa donc la ñu jox kon une administration d'une ressource bi nga xam ne qui n'est pas et qui n'est pas éternel mu jox ñu ko nag ne ñu nag euh, dundee leen ko nii yore leen ko ne voici le cap nii lañ ko war a doxalee te loolu wax dëgg yàlla euh, dafa yenu maanaa donc dafa yenu maanaa lu tax ma ne dafa yenu maanaa tubaab bi defar oto jox jox la oto bi defar réservoir ne fii essence lay jël defar beneen place ne fii ndox lay jël def beneen place ne fii huile lay jël bu dee da nga bëgg jaay téméraire maanaam quand on est téméraire pour dire que non man pourquoi may topp li gars yi wax non non on doit faire oto bi ñoo koy doxal ni mu neexee fu ma neex laay dugal lu ma neex nga jël fi war a am essence nga def fa ndox fi war a am huile nga dóor fa nga dóor fa essence mais dangay ngay yàq oto bi sa moteur ngay yàq donc adduna bi tamit dafa am kenn ki xam moo ko moom kooku mooy Allah subhanahu wa lii mooy la l'essence doon paradigme am Allah moo ko moom moo décidé ba pare dogal naka lañ ko war a yoree. fu ñu ko war a yoree lu ne fa lañ ko war a dugal moom mënuñu ko tànkamlu ci addunaam bi nga xam ne moo ko moom ba pare ñun ñii mu wàccee si kaw adduna bi tam moo ñu moom waaw lii moom vraiment dinaa si ñëw en en en en en profondeur incha allah li daal mooy cinq chapitres yi nga xam ne cinq épisodes yi nga xam ne incha allah on va les aborder mais nag balaa may dugg aujourd'hui nag si euh, épisode bu tey bi maanaam si introduction da ngeen may may euh, quatre points yi nga xam ne bëgg naa ko bëgg naa ko andi. Euh, xam ne vraiment bëgg naa ñu laajante ci biir ndax gis naa ni euh, mbir mu jéggi dayo la bi xamé xam ne mënuñ cee ñàkk àddu bi si jiitu euh, c'est le mardi gras ndax tey jii euh, mardi gras la woon ma gis sur la toile beaucoup de musulmans seen doom yi ñu déguiser leen bàyyi leen ñuy dem école donc ba pare ñu koy ñu koy koy avec benn fierté donc nga xam ne ñii du question de dara mais question de ñàkk xam la en réalité ils ne savent pas ils sont en train de répéter des bêtises yi xam euh, qu'ils ignorent waaye lépp sous le feu euh, de la modernité sous le feu de d'être d'être moderne et open du positivisme kenn ku ci nekk naan non bon il faut laisser les enfants ñu dund noos dama bëgg ñëw rek d'abord ne Premièrement, la base. Mardi Gras, ce n'est pas une fête musulmane. Comme ça, c'est un cadre. Je suis très open. Je suis très open, mais si nous un symbolique derrière, un fait, fait que c'est le problème. Mais l'idéologie derrière le fait, la doctrine qui sous-tend ce fait, euh, la philosophie qui alimente ce fait, c'est ce qui est le fait. Et tout ça, ça, ça, ça, ça, innamal a'malu binniyat wa inna likulli imrin ma nawa l'intention a une valeur extraordinaire par rapport à l'acte acte bi amul solo non acte bi mën ci je n'ai vraiment j'ai pas épilogué sur le déguisement des enfants mais dama bëgg ñu xam la fête bi ñuy wax Mardi Gras dans un sens premier ça ça concerne pas des musulmans ça concerne des chrétiens yi xam euh, ñom ñi ngi wajal dem ci sen carême ñu am ben semaine bi nga xam dernier jour bi nga xam ne may ñu du gras waaw ñu lek li nga xam ne koy téré durant cette carême donc ñom après mardi gras rek c'est le mercredi des cendres ñoom seen commencé donc c'est à 47 jours de la Pâque donc ñom ñi wara wor ça les concerne donc un musulman vraiment je ne vois pas lu yoonam nek ci biir mardi gras c'est comme euh, un chrétien domo chrétien yi commencé lijjanti guddi laylatul xadri ci bir weeru koor donc loolu ça concerne pas nit ku nekk dafa am héritage bi nga am système de valeur bi nga am système de croyance bi nga am bi xam da nga ko war jox cër fonk ko euh, téye ko pare xam signification surtout diko dundal nak parce qu'il y a un symbolisme derrière toute chose donc primo c'est pas une fête musulmane gisuma pourquoi dom musulman yi euh récupérer ko euh bëgg ci son waye même bu doon sax léegi c'est une fête bi xamé mais les musulmans yi ñu ñu féete ko man dama gëm sax ni même les chrétiens war ñu ko fêter ndax Mardi Gras dañ ko créé woon pour ñaawalee ko l'église en réalité euh, ñu bëri dañoo am ay lacunes en histoire waaye bu ñu xamoon tuuti histoire dañu xam ne même l'église dafa doon xeex pour tere Mardi Gras daf ci mënu woon dara Mardi Gras fait partie des fêtes yoo xam ne église da ko fi fekk mu bañ koo dindi pour bañ a bëri doomu aadama yi y a trois fêtes yoo xam ne. dañoo lëkkaloo ci biir fête bi ñuy wax Mardi Gras te trois fêtes yi soo ko gëstoon ci histoire wallaay azim di ngeen mer sax bu dee seen doon dafa bëgg fête la première mooy ñuy wax la fête des fous la la fête des fous euh, soo demee ci histoire France sax dem nañu ba euh, jamono François premier roi de France euh, demoon Rome le le Vatican demoon na ba tere sax la fête des fous mooy fête bu doon am ci jamono bi ñu nekk nii ci Madigan bi donc fête le bi nga xam dañ ko doon ñaawali église C'était un jour bi nga xam nommé ce qu'on appelle un évêque des cornards je parle pas de connard mais des cornards avec R C O R L'évêque des cornards c'était juste pour pour ñaawal église loolu ndax jour boobu mooy jour bi xamné ñepp ne doon déguisé mag yëpp dañuy déguisé wu déguisé wu jël ay yërewu labbe ak prêtre yi ñu sol ko diko les prêtres de l'église. ni koy on entrait dans les églises. Euh, les luy luxure les luy lec, les luy faux, tout était permis nan doon nan di des mandi euh, faux, les même des orgies des séances de sexe en l'air on le faisait dans les églises des les les les les prêtres et les papes prêtres Vatican di ko d'accord avec aujourd'hui l'église

ñu leen rëbbee dañuy lekk ba suur dañuy lekk lu ñu tere donc on bois en volonté dañuy lekk ay mbaam naan ay sàngara te lii yëpp en réalité je précise encore dans la religion chrétienne authentique bu yonent Yàlla Iisaa jàngale ko ci tere chrétien warul naan sàngara te warul lekk yàpp mbaam lii war jullit bi moo war chrétien bi yàlla dafa ko tere li moom soxlu may dugg dans les versets euh, de la Bible soxlu may dugg exode ni ni où que ce soit pour rappeler que j'avais fait un live pour leeral lan moy, lan la yonent yàlla Iisaa jàngale te jàngale bu ko seet gëstu ko gis ci soriwul yonent yàlla Muhammad waaye loolu moom beneen débat donc la fête des fous était une fête bi nga euh, ne moo doon am jour Mardi Gras on faisait des processions dugg ba ci biir église bi jaxase ko ci sëyante ci cappalante ci il y a eu de grands euh, prêtres des évêques il y avait xeexoon nañu en France comme mel Odon Odon de Sully ko il n'a pas réussi c'était pas le seul il y a eu beaucoup si signes, mais ils n'ont pas réussi donc euh, fête Bobo, elle n'était pas seule jour bi ñuy wax Mardi Gras muy la fête des fous euh, dinaa partage sans page après un euh, reportage bi xam France histoire ils l'ont fait sur la fête des fous de colère. fête des fous Bobo, au 17e siècle la soo arrêté la fête des innocents faisait partie des fêtes que nous faisons aujourd'hui. la fête des innocents concernait des enfants moi xale yi entre cinq et 8 entre 3 et 8 ans ñu jël xale tamit on choisissait un évêque parmi ces enfants là bi l'évêque du jour xale yi des di des di faux, di foowee diine chrétien jël ay prières yi prière la prière de Kyrie nga Kyrie dañ ko doon jël après soppi ko ak ay farces di ko donc, euh, pour dire que c'était une manière de saboter l'Église en réalité. Donc, si bolé la fête des fous, il y a même mag qui nous saboté. Dialogue, les petits hommes. Avec la fête des innocents, avec nous de Khalé, créer un évêque Khalé, créer des chanois Khalé, créer des, des prélats. C'est que les plus grandes églises de quoi ñu jël ko boolandoo ko ba pare nag avec benn esprit ci ginnaaw esprit bi daal dañu doon wax ni il y avait neuf vices du couvent ñu wax les neuf vis du couvent neuf vis yëpp dañ koy jël dañ koy dañuy jalgati nit neuf yëpp les neuf vis laak lan la woon c' était ñu euh, tëdd sax lekk gi la gourmandise ñoo jàppoon ni gars yi kat les les prêtres ak les sœurs ak yëpp li ñuy lekk li ñuy lekk dafa ëpp dañuy lekk rek c' était euh, l' adultère dañu wax ne les prêtres ak sœurs yéen ñu ngi tëdd seen biir donc kon ñun tamit bés bii dañ koy saboté ñu génnee lépp li nga xam ne mooy les vis du couvent et on le faisait en l'air on le faisait dans l' église te prêtre duñ ci mun dara

donc l'église s'est accommodée en Europe surtout en France nga xam ne jamono bi nga xam ne xuloo yi am na bu leen fàttali France y a eu beaucoup de rois nga xam qui ont été excommuniés euh, parce que ñu doon fontoo ouvertement euh, le Vatican donc malgré que la France moo nekkoon la fille de l'église donc il euh, y a eu beaucoup de choses yi nga xam ne wax def nañ ko saboté maa ngi fàttaliku sànq maa ngi koy waxtaan ak un ami sax di ko wax naan wéy bu doon wéy sax.

yeneen yu bëri c'est des fêtes païennes yi nga xam ne feetu mooy la woon les Lupercales def naa ci live waxtaan ci def naa live ci Saint-Valentin li expliqué la mooy Saint-Valentin peut-être fête des mères la mësagul woon def live maanaam fête des mères sax fête euh, Mardi Gras laa si mësul woon def et li attiré sama attention tey sama benn doom dafa wàcc tey ñëw fekk ma ne ma ñun papa la ma tax jënd loolu ma tamit yére ma sol ko ñëpp j'étais obligé de lui expliquer euh, et xale la il a 4 ans mais j'étais obligé de l'expliquer en détail après la comprendre non mais lii je dois le partager avec la communauté donc euh, macha allah donc euh, saboter église mo nekkul mo waralon euh, jour tay jii ñu xamante gra saboter église donc trois fêtes yep, fête yu am histoire ci France di gëstu histoire mo dem gëstu ji ko la fête des fête de fête des innocents la la fête des fous nga même ne moom ans passé récent gaay ko ko continué ko doxal li mo andi won des carnaval donc il y avait un carnaval avant ñu dugg ci carnaval. bi carnaval nag un carnaval vient de carne ak levare carne moy sax c'est enlever c'est le jour la bi bu baax graisse parce que c'est interdit aux chrétiens durant euh, son carême donc euh, bon euh, ki la parenthèse rek man ni bu xam la lañ def la liturgie euh, les prières dem sax ba changer prières yi di wax euh, de la du porc de la truie au nom du père du fils ak yëpp changer du porc de la truie et de la boisson euh, encanaillez-vous maanaam dafa ça woy def ay procession génn ci mbedd bi ñoom ñëpp ni habillé ku nekk déguisé wu déguisement du matin au soir ku nekk defal lo neex dama japp que c'est ku sérieux sax la wax war ko fêter bu koy ay donc nous, on est, on est gardien de principes et de valeurs que nous devons transmettre à nos enfants. Julit dafa am lu bëri li nga xam ne war ko féeteloo doomam donc euh, en tant que julit nag war nga war moytu di déguiser ay xale di déguiser ay yëre jigéen di déguiser ay góor ak comme nous gars yi seen c'est pas bien wax de yàlla du du l'islam du suñu aada tamit du aada bu rafet donc euh, man su su ma nekkoon chrétien sax du ma féete Mardi Gras ndax ni ñu ko ñaawalee. Euh, église ak ñu ci tooñee euh, les lu euh, mu sax le diocèse en fait maanaam ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo doon église mais bref lii le comble nag mooy la fête de l'âne yàlla nañ ba sax mooy yuuxu sax comme yuuxu mbaam ci biir église bi ba pare ñoom ñi layal ko ne non le prêtre yi latin la ñuy wax ñu dégg du latin donc tam suñu taxee daan xii on ci biir église bi ça ne doit pas tam gêner tam les prêtres que tooñ daal weesul loolu Euh, jàpp naan tooñ googu nag ñun waruñ cee waruñ cee bokk donc li daal euh, bokkoon na ci li nga xam ne ba en février maa ngi gis sax man maa ngi gis benn note bi nga xam ne François premier la en février 1540 donc euh, bi nga xam ne dañ ko interdiroon instant le pape commencé doon jël responsabilité tere ko y a eu des conciles on ne ñoom lii dafa ñaaw ca pas normal Mardi Gras di continuer am le roi de France daf ko ne maa ko daganal foo leen noos leen lekk leen képp ki xam ne bëgg na fóon wala mu def lu ko neex ci biir defle ko ci église bi ndax yéen a ko moom donc pour dire ka rek euh, dafa am fu mu jógee daal am na fu mu jógee fu sore sore sore donc euh, war nañ cee bàyyi xel bon lii mooy premier point buggoon naa ko parenthèse la woon xaw naa ko guddal nag waaye jàpp naa ne jar na ko euh, beaucoup de choses ñu ngi koy def te xamuñu sax le sens gisuñu baax a baax la poids ak la portée donc war ñu ko xool bu baax a baax balaa ñuy balaa ñu koy defloo suñu ay njaboot surtout ku taxaw na jullit nga ndax boo nee jullit laa rek mooy da nga am référentiel sa référentiel mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam royloo ñu la keneen maanaam royloo ñu la keneen waxuñ la demal roy ji Adama royal Moussa non non royloo ñu la ko wax dëgg yàlla dañu woo nañu roy leen yonent yàlla Muhammad nañu doy ñu doy képp doy ñu mbokk yi donc les fêtes des autres duñ ko ŋaañ duñ ko xas mais ñun fêteloo wuñu ko ce ne sont pas nit ki tam da ngay doylu daal da ngay doylu dafa mel ni comme nous def fête d' Sénégal ñu toog nii dañuy commencé léegi fête indépendance dëkk États-Unis seen indépendance juillet ñu koy féetewaale France 14 juillet xaw ma la ñu koy féetewaale euh, Italie mais non c'est pas notre rôle en tant que pays on ne doit pas fêter yenn indépendance dëkk tout est dans ŋàññ ñu indépendance amuñu problème ak indépendance mais il faut savoir qui on est euh, d'où l'on vient où on va n'y yi pas beaucoup xamul pour man doo nit bu normal donc euh, yàlla na yàlla defal la sutura euh, defal ñu tawfiix ba ñu ràññeewee ko noonu macha allah euh, ñaareelu tomb bi nga xam ne bëggoon naa si def parenthèse balaa ñuy gën a xóotal ci suñu introduction tey ci islam politique euh, mooy le discours du président de la république Macky Sall ci fan yi mujj def na benn waxtaanam moom di ko teg ci wàllu islam radical donc ndax wax bi dafa yéeme trop moo tax ma jàpp ne wala si def parenthèse islam radical ak euh, islam ak serigne mais Macky Sall dafa jël discours ne mon il va tout faire pour protéger le Sénégal contre l'islamisme radical ba pare tamit protéger les kilifa diine yi wax bobu soko ko l'anodin day mel lu anodin gis naa sax ay nit japp non Ousmane Sonko lay lay garwalé Ousmane Sonko son programme n'est pas islamique waxuloo Ousmane Sonko du Sénégal bu un parti dafa parti bu ñuy gaaruwaale kon suñu parti ñun dañuy gaaruwaale ndax suñu parti aujourd'hui mu ngi tere nelaw état bi au plus haut sommet ndax li nekk di de poser comme problème mon problème bu islam te islam boobu saay-saay yépp yi nga xam ne ñoo ànd ak dajal bëgguñu dégg islam ils ont tout fait pour verrouiller à travers des textes les plus islam ba bañ jullit yi reconnaître ci seen bopp ci loolu waaye ils n'ont pas réussi ndax mënuñu tere ñun génnee li nga xam moom la ñu bëgg wax wax wax na te am ñeenti point yoo xam ne bëgg naa ko fàttali président Macky Sall bi si jiitu mooy moom ñu bëgg a protéger kilifa diine Sénégal yi nen dafay protéger kilifa diine pour bañ kenn saaga leen dama koy fàttali rek moom kilifa diine yi seen kilifa mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ ko caricaturé xas ko ñaawe ko moom jëloon na avion dem massawu ñooñ nga xam ne ñoo doon fontoo yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon moom gëmul yoon ci yàlla Muhammad ku faalewul nag yoon ci yàlla Muhammad gëwma di nga faale ay taalibe yoon ci yàlla Muhammad nekk ci biir dëkk bi dëkk bii ñi fi nekk ñëpp tey seen sët yi seen maam yi ñooy gën a kawe maqaama ndax ñoom ñëpp amu si kenn si ñoom ku jéema a wuutu wala ku jéema dabu sa maam ne maa ko raw boo demee fële ca Touba sëñ Muntaxa fa nekk moom xam na ni mënul raw sëñ Touba boo demee mbir na bàyyi Cheikh Mahi fa nekk xam na ni tollul fenn Cheikh Ibrahim Niass euh, baayam boo demee Tivaouane sëñ Mbaye Sy Mansour ñemewul teqale yoo ko mag Alaaji Malick et cetera ak ñeen ñi fi nekk ñëpp nag wax dëgg yàlla waaye ñooñu ma tudd nganda yooyu ma tudd laa ñoom alaaji Malick ak ñoom Serigne Touba ñoom ñoom Baye Niass ak ñoom ñëpp ay taalibe yéen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yoo xam ne ce sont ces inconditionnels donc moom kon président Macky Sall li mu wax waxi tappale la jàpp naa nag ni li mu wax nii du lu ndaw te lu ñu war a xool la rek man gëm naa ni on doit aller vers une loi d'abord fi ñu war a jëkk tàmbalee on doit aller vers une loi pour jéem a xool nu ñu protéger les patrimoines communs donc muy muy yonent Jésus euh, ak si figure lañ yu ay nit même ay autorité coutumière ñoy nit euh, leen war protéger à tel enseigne que nit n'importe quoi ko sa der du yoon ko sax même waxuma Sénégal Union africaine wala Nations Unies ko invité combat pour les Nations Unies comment protéger euh, préserver la foi et les croyances des individus. paix dans le monde. Cette paix-là ne saurait exister sans le respect mutuel. Sans ne connaisse fonk morom. weer yu ñu génn yaa ngeen fàttaliku euh, saay-saay boobu lakkoon alquran ñun bindoon nañu par rapport à ça pour tribune nations unies Il y ni si ñu def beneen liggéey sax aujourd'hui liggéey bu gën a kawe bi xam ne préparer une fédération bi nga xam ci jullit peut-être mën naa ko wax euh, nous, ñu ngi jamono bi fédérer tous les partis islamiques dans le monde entier pour am benn international benn fédération internationale des partis islamiques dans le monde entier euh, ñu ngi ciy au niveau RV on a déjà on est déjà entré en contact avec beaucoup d'autres partis politiques Wa Tawassul au niveau Mauritanie en France avec l'UDMF, le parti islam en Belgique. Il y a beaucoup de partis mais on les a contactés. Moi, personnellement, j'ai parlé à leur président. Donc, nous, comment avoir déjà une fédération mondiale de tous les partis yoo xam ne se réclament de l'islam muy benn parti yooyu dina nekk benn genre échange forum bi xam on va échanger par rapport à l'islam puisque aujourd'hui dañu bëgg a gëmloo ne il y a des islam alors que ñun gëmuñu li ay islam am islam lenn kese la muy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi loolu mooy benn ñaareel ba tamit mën nañ tamit nekk une alternative par rapport même aux instances internationales yoo xam ne amatuñu ko ñu waxal ci l'islam aujourd'hui ay aussi vraiment c'est un repère bi nga xam ne repère ay tappalekat la donc ay saay-saay fa gën nekk waxaluñu l'islam

waaye ñaareel ba bu mu yem foofu ñaareel ba euh, le culte état Sénégal dafa ne dafa donc comme ça interroge kon la laïcité bu nekk dans la constitution du Sénégal laïcité ko dafa ñu xool nous ne sommes pas laïc nous sommes un peuple de croyants musulmans et chrétiens donc en tant que un peuple de croyants nag musulmans et chrétiens waruñu jël kon di bind ay bêtises dans notre constitution ndax dafay yóbbu suñu constitution mu nekk di wax ak askan bi nga xam ne bokkut ak ni mu yor ñun instant nous nous sentons étrangers c'est une la constitution du Sénégal mais une constitution qui nous rappelle des artefacts français qui nous rappelle une histoire française qui nous rappelle une trajectoire politique de la France alors que le Sénégal a une euh, tradition un héritage une culture et on ne le sent pas dans la constitution donc on révision sur cette laïcité là qui est une exception française et qui ne devrait pas être dans la constitution Il tamit daf parenthèse dans la parenthèse et on a vu que qu'il y a eu une tribune sur euh, le journal Soleil le Soleil bien des gens ont parlé de la République et de la démocratie cette tribune là a été signée par beaucoup de personnalités des professeurs d'université des syndicalistes euh, des avocats euh, des hommes politiques des chefs d'entreprise ils ont parlé et maintenant, dama cette tribune là elle n'est pas sérieuse Euh, Dina peut-être dans ces jours à venir def critique mais dafa gis déjà rek ñoom euh, république bi ñu ko jël di ko màggal démocratie di ko màggal à telle enseigne que dama jàpp ne dañoo comprendre li xew wala ils ont ils ont ñoom ñoo ko di la république aujourd'hui n'est pas une affaire de tout le monde cette république là euh, c'est une création bien nga cette république là autorise même qu'il y ait des Sénégal dans le Sénégal on a un Sénégal des privilégiés des jouisseurs un Sénégal des profondeurs des oubliés et en traitant de la République, ils ont fait fi de cette réalité-là qui est là au Sénégal. On a une mafia politico-maraboutique, afféro intellectuelle qui est dans ce pays qui est au Sénégal depuis des décennies de Kenya au Baram. Des fois, am na si ne sont nañu les politiques waaye les religieux Ils ont dit ne la donc le débat dañ ko daw de di train mais je les excuse ñu waxati waxu démocratie mais nous ne sommes pas en démocratie Nous, où étaient-ils ba ñuy ba Macky di tordre les libertés individuelles des gens ils étaient où ñuy jàpp ay nit ndax il fallait faire une tribune par rapport à ça ils étaient où ba Macky jël di foowee institution di instrumentaliser moy xam la justice la mo xam les les cours et tribunaux la mo xam la police la ñëpp koy utiliser par rapport à son agenda personnel fa la ñu nekkoon donc euh, et dans leur tribune ils se permettent de dire une grande bêtise ils disent que ñom il y a des forces extérieures qui sont manipulées ñooy manipuler wala ay lobby yu nekk ci bitim réew euh, cette stabilité là que nous avons mais de quelle stabilité vous parlez ce pays n'est pas du tout stable dëkk bi nekkul ci jàmm dañuy rek bi hypocrisie fi mais nekkul ci jàmm jàmm mënul am fi xam ne amu fa ak maandu ak yemale ñett yi fu mu amul mënu fa am waru donc euh, il faut nag ñuy waxante dëgg te bàyyi tappale euh, occasion yi su amee ku nek jël xalimaam di jéem a xool nu mu neexale ba ma gisee ñu bind ko soleil rek la xam c'est quelque chose qui est favorable au au chef au prince ndax le soleil euh, si presse complice bi la bokk presse bi xamé waxul deug wa Sénégal bëggul wax Sénégal bi xam bu ñuy dund ñun ben Sénégal d'illusion lay wax Sénégal bi xam moy préparer émergence Sénégalu président Macky Sall ak ay nitam Sénégal bobu lay lay traité il traite pas des opposants il ne pas de ceux qui ont une vision dissidente par rapport au chef de l'État. Il parle pas, il, il, présente pas ceux qui critiquent l'action du gouvernement, positivement d'ailleurs. Donc, comme cette presse-là, c'est une presse couchée, bien ramée. Comme je vois de façon déjà, a priori, euh, malgré beaucoup de préjugés, mais a priori, je sais qu'il y a des gens qui ce un gens qui Donc, il y a une censure organisée dans ce qu'on appelle cette fausse république-là y a une censure bi nga xam ne ñëpp ñi nga xam am na li nga xam ne boo koy wax ci discours boo koy doxal mais vraiment dañ lay dañ lay dañ lay blacklisté dañ lay teg na la bañ kenn liir la bañ kenn déglu la ñun si ñoom lañu bokk et on l'assume nag ñun ay lire rek ay déglu sincèrement dundaluñu alhamdulilah donc kon euh, gis naa kon président di wax sooku islam radical euh, bu dee ñun la si jublu ci wax boobu di mbubboowaale Pastef ñun nous disons que euh, nous sommes pas des gens radicalisés nous, nous sommes des musulmans, nous nous exprimons. Nous voyons que l'islam a des solutions inexplorées dans ce pays. Nous avons vu que l'islam propose des solutions que cette république-là a décidé d'ignorer et de rejeter. Comme cette république-là, déjà, elle, elle fait la ségrégation. Muy ben, ba paré dafa dafa boléwul kon ñëpp kon am na ñenn ñu bedd ci ce qu'on appelle la république donc elle n'est plus république parce n'est res publica la chose de tout le monde qu'on fait amener ñi une ñu les musulmans dans ce pays je le dis haut et fort hein, et je l'assume les musulmans dans la dans dans la prise des décisions dans le mode de gouvernance à choisir ñaar dans l'application des solutions muy état l'état du Sénégal reconnaître l'oriental Mohamed. Il faut Muhammad faalewul sëriñ on n'a pas institutionnalisé sax l'apport de ces marabouts là dans ce pays Macky kon bu taxawé di wax né waw dañ lay wara porter serigne sëriñ yi da ngay fonto serigne yi en réalité serigne ñom bon euh pour la plupart ils sont complices say complices ak yow ñoo àndal yena a àndandoo di fowé dëkk bi tam man dama gëm ni serigne dëgg la bu taxaw ci maqaam bi mo war taxaw mënul and ak président Macky Sall loolu la gëm mënul and ak mom bu and ak mom rek moy ko dëgg-dëgg fi mo war taxaw taxaw fa taxaw fa mëno taxaw un tyran ku ku jup di jaamu yalla alquran li mu njëkk jàngale mooy ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar dama ne un musulman accompli buy buy topp précepte alquran du top du du and ak un tyran du and ak ki xamé c'est un despot du and ak ki xamé da fay fowé lu ñëpp bokk ak di toroxal mindif sachant que doomu adam mooy xalifu yalla ci kaw suuf donc man wax dëgg yàlla Macky ak ni ngay lëre manam yow sama groupe bi kese waaye nag ma dama bëggoon rek joxaat beneen conseil muy troisième conseil bi par rapport à cette cette comédie là bi nga xam ne yaa ngi koy joué sëriñ mooy sëriñ yi boo ñu bëggoon rendre hommage dëgg-dëgg seen xalaat ñu jël ko di ko boole ci réew mi pourquoi ne pas créer un conseil du culte supérieur un conseil supérieur du culte ndax conseil supérieur du culte su amoon ci réew mi chrétiens yi nekk ci musulmans yi nekk ci ba ci waa bois sacré nekk ci. dañ koy jël utiliser ko comme une chambre bu ñuy boole ak le parlement ba tax loi yi ñuy voté Sénégal loi yi du waroote incha allah ak benn gëm-gëm ci dëkk bi ndax dëkk bi kat ay borom gëm-gëm ñoo fi ne ay musulman fi rek ay chrétien war ñu fi voté benn loi bi xam ne mën na gàllankoor croyance ñu fi dëkk ndaxte ñu ngi dans un monde bi xam ne un monde tellement ouvert un monde bi xam ne le pouvoir extérieur dafa am doole bi xam ne ay traité yu bëree bëri la ñuy imposer suñu président yi pour mën leen a jox dara ci ay xaalis.

nañ dem ba instant bi xam ne góor ak góor nañu sëy si biir dëkk bi jigéen ak jigéen di sëy nañ dem ba jamono bi nga xam ne parents sax du amati droit ci doomam moom ci boom donc ndax monde boobu ñu nekk bu ñu fàtte dañoo nekk ci benn monde bi nga xam ne aujourd'hui euh, waruñu ko fàtte nous sommes dans un monde où euh, une personne léegi des personnes euh, dans quelques pays de ce monde là dañuy am droit sax di dee di joxe seen ay alal seen ay mala di ko dond am un animal di hérité des biens d'une personne ay millions si monde boobu la ñu nekk aujourd'hui lii c'est le c'est le de la bêtise et de l'absurdité ñu ngi ci benn monde bi nga xam ne ay jigéen taxaw nañ internet di jaay seen virginité aux enchères la française la Jasmine xaw elle a vendu aux enchères sa virginité à 1 million d'euros Un banquier bu Wall Street États-Unis moo ko jënd euh, internet la palme maanaam record aujourd'hui qui a gagné euh, c'est une fille bien nga genre est ce allemande wala pays de l'Est la mais en tout cas en Allemagne international bien amee le prince bu nek Abu Dhabi mo jënd Virginie ben gel à 2,2 millions de dollars donc ay y a des agences qui se sont créées en Europe il y a un marché de la prostitution donc un marché extraordinaire Il y a presque 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui découle de la prostitution donc tok di posté photo xalé bu ndaw 18 19 ans man euh, ay roumaine gel boobu une roumaine en réalité.

ba vous bëggee jàngal sa doom gëm-gëm yi ne droit jàngal ko gëm-gëm yi forcé mu ko sa loxo un parent n'aura plus de pouvoir sur son enfant loolu commence na seen dëkk yi y a une gouvernance mondiale de lépp il faut comprendre baax système bu un système d'interdépendance absolument pas d'indépendance donc li comprendre dina poser combat donc nous avons vu ku ci nekk war ñu des textes par une chambre euh, une deuxième chambre au niveau de l'appareil législatif une deuxième chambre bi parlement Sénat conseil islamique supérieur un conseil de culte bu boolee ngëm-ngëm yépp comme ça lépp lu ñuy signé ñu xoolaat ko bu baax par rapport suñu gëm-gëm bu méngoog suñu ay gëm-gëm ñu ñu ñu dugal ko bu bu dàqoonteeg suñu gëm-gëm ñu dindi ko ndax Sénégal dañu war a protéger nag li ëpp solo lu ñu am te mooy suñu ay gëm-gëm man gëm-gëm boobu maam laa laa jàpp ne mooy richesse bu gën a rëy moo ma gën a réel mën ay pétrole ak gaz ak ay or donc euh, lii kon lu am solo yaa xam ne président Macky Sall war ko wax yaa ngi da ngay protéger ay sëriñ amoo sax ministère du culte yow moom la culture yow faale kon tàppale kese ngay def donc man vraiment discours boobu noonu xam naa ni am na ci wàll gi nga xam ne jéem a diaboliser euh, Pastef la ak waa Sénégal ndax ñu bëri ñu ngi bëgg identifier ñiy saaga sëriñ si te ñiy saaga sëriñ si ay ay ay ay ay ay ay ay nit la yu am ay faux profil te président ci yoom dañu la ñu jàpp y a même pas une semaine agence feeñal ne président dafa fay moom ay nit pour ay faux faux compte ñu am ñoom pour ñëw liggéey ci biir internet Sénégal kon président yow am nga lu mat quarante comptes faux compte la entreprise israélienne di la ko defal fii Sénégal dugg ci internet pour manipuler ak influencer l'opinion donc wax dëgg yàlla ñun gëmuñu ne waa Pastef ñooy saaga ay ko gëmuñ tamit ñun ñii les promoteurs de l'islam radical dans ce pays non ñun islam la ñu radicalité islam c'est le libéralisme qui est radical c'est le libéralisme euh, qui est extrémiste j'ai fait tant et bien article sax tuddee L'extrémisme l'extrémisme économique de l'ultralibéralisme ». donc euh, mon la mais pas l'islam donc euh, euh, deuxième point bi li la woon troisième point C'est un plaidoyer Bien, xam ne jàpp naa ne mën nañu parti de taxawal pour rassemblement pour la vérité RV dafa nekk ci situation bi xam aujourd'hui de nekk di liggéey révolution dans ce pays révolution bi jàpp ñu sax dafay yem Sénégal dañoo gëm dafay génn Sénégal incha allah ndax dañu wàll yeneen dëkk yi xam ne dans sous-région la pensée de l'islam ak lan la islam andi comme modèle lii on compte le vulgariser le présenter ba pare euh, doxal ko ci àdduna bi euh, pour ndamal l'islam pour liggéeyalee ko incha allah Muhammad sallallahu alayhi euh, il faut ñu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ci kaw suuf faut ñu liggéeyal borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla daf ñu fi indi nag pas pour ñu nelaw wala pour ñuy lekk wala pour ñuy xoole daf ñu jox mission ci kaw suuf mission boobu mooy ñu matal lu ñuy wax euh, ñu gàddeel ko suuf ginnaaw islaax bi ci borom bi subhaanahu wa taala def loolu tax nag ni dafa laaj nag ay moyens pour pour jàngale dafa laaj ay moyens pour vulgariser enseignement boobu dafa laaj ay moyens pour taxawal ay structure jënd kër sax bi nga xam këru parti bu gas la war a nekk bañ a nekk di loué wala bañ a nekk di di di di taxawaalu lii yëpp dafa laaj nag xaalis ndax aujourd'hui c'est le nerf de la guerre man personnellement mosuma ñaan xaalis waa Sénégal mosuma dugg kaso tamit ba nanguñ defal ma cagnotte gars yi ñoo am tradition ku dugg kaso ñu defal la cagnotte laajal la xaalis soo génnee jox lay million millions man je n'ai jamais voulu de l'argent de qui que ce soit dama ne man li may xeex yàlla laa koy xeexal soxla ma kenn jàppale ma donc cagnotte musuma ko lancé pour sama bopp en tout cas benn yoon laa mës a lancé cagnotte c'était pour Imam ba Badara Ndao dërëm lekk moo ko si c'était dërëm ñëwul sama téléphone alhamdulillahi rabbil alamin waaye tey nag man dama jàpp ne damay woo waa Sénégal ak waa diaspora ak waa adduna bi yëpp ci ñu japp ci liggéeyu RV bi ndax liggéey li bi nga xam ne euh, liggéeyu lislaam la liggéey li bi nga xam ne liggéeyu valeur la boo demee dëkku tubaab bi wala yahut yi li yahut dañoo comprendre baax a baax la mooy lobbying ak la mooy xeex pour agenda wu seen diine pour di ko jéem a màggal ñun musulman yi ñoo xamagul lan mooy lan mooy njëriñu xeexal suñu diine dañ ñoo dañ ñoo yàgg nax suñu diine dañu ci nax ma nga xam ne ñu si bëri dañoo ragal suñu dañ ko ragal dañoo bañ diine bay ragal ko ndax xamuñu ko nag on compte nag liggéey ci xamal gars yi la mooy suñu diine surtout ci dimension bi nga xam ne dimension siyaasiya naa si ñëw léegi ci introduction bi donc carte bii ngay gis nii lii carte soutien la xam nga danañ ko gis baax a baax carte soutien la bi nga xam ne carte soutien au rassemblement pour la vérité la euh, carte bii man dama ci am benn stock bi nga xam ne dañ ma ko jaayloo man man maa ko war a jaay. jaay bi ma koy jaay tamit duggul sama poche duggul tam sama poche njaboot jaay la bi nga ci liggéeyu lislaam nar a dem incha allah ci biir réew mi ci préparer euh, liggéeyu lislaam ci instance décision yi ci biir dëkk bi carte bi man li ma ci yor man dama am ay prix dama am quatre prix yoo xam ne laay jaay carte bi carte yi nag am na ñeen ñu yor bu oyof bi nga xam numéro bi ñoom euh, euh, te sax saal yu mën na ko dugal saare euh, ma dugal numéro wu euh, rv bi nga xam ne ñoom mañ si jënd waaye man carte yi ma yor man je sama carte bi à deux cent cinquante mille am naa benn carte may jaayee mille am euh, yeneen carte yoo xam ne un million laa koy jaayee ak yeneen carte yoo xam ne cinq millions laa koy jaayee montant yi ngandul man gëwmën dafa ngand gëm naa ne ay julit ñu ngi si dëkk bi di liggéey di xeexal alquran ñu ngi xeex di jéem a dimbali daara fi gën a gaaw fi mën liggéeyee mooy euh, politiser le combat maanaam la combat doit être politique carte euh, yi ma yor man en tout cas montant yi laa koy jaayee te carte yooyu nag wax dëgg yàlla maa ngi njort ne dinaa am ñu ma contacter pour jënd ko incha allah euh, jàpp naa ni liggéeyal diine la liggéeyal lislaam la liggéeyal mbaax la te wax dëgg yàlla képp ku def ci tari xeexu tari wala boog toolu xarew lislaam borom bi yow la koy fay macha allah donc wax deug yalla li daal moo nekkoon plaidoyer bi xam ne bëggoon naa ko lancer par rapport à ces cartes de soutien là bi xamé euh ne macha allah euh, numéro sama numéro pour ñu jënd carte yi naa ko jox jaraaf euh, numéro jaraf mo tax ma sama sama numéro yépp mais li dal deug yalla bëgg naa ko jaay macha allah euh, en dehors de ça ñu gis si campagne de massification et de mobilisation suñu carte membre yépp yëpp euh alhamdoulillah nak di ci bëri li adhérer on a des milliers de personnes yoo xam ne sincèrement ñu ngi adhéré et loolu ça benn benn bànneex la ci biir xol waaye ba tey des na dañoo gëm ni on doit avoir cinq millions au moins de personnes yoo xam ne dañuy parce que dañoo gëm liggéeyu yonent Yàlla Muhammad sallallahu man jàppoon naa ne instant bi ñu toll sax xalif généraux Sénégal yi ñoo na loon njëkk woote laaj seen carte ñoom ndax xalif généraux yi ils sont censés toog ci benn ndono bi nga xam ne ndono l'islam la donc kuy toog nag ci ndono l'islam man jàpp naa ne ku yëkkati xalaatu l'islam Eh, kooku yow lay dimbali donc wax dëgg yàlla ba tey nag ubbi nañ suñu bunt yëpp ñu ngi ciy woo ñëpp kilifa diine imaam yi eh, jullit ni ñun daal ñu ngi eh, des di wax ne alquran mooy suñu mooy suñu système yonte bi sallallahu alayhi wasallam mooy suñu model sharia mooy suñu jublukaay te lii wax dëgg yàlla dañoo gëm ni dañoo war a liggéeyal diine ci réew mi ndax diine moo tabax réew mi loolu gëm ni donc euh, macha allah lii parenthèse la woon ci RV rassemblement pour la vérité ñu ngi ciy woo ñëpp nag di ci xëcc ñëpp ñëpp ñi nga xam ne gëm nañ ni euh, bu yonent bi saa sam nekkoon ci kaw suuf jamono bi nañ daw dem màq ne ko ñuy ànd yow xeex pour màggal diine pour diine gën a tegu ci kaw. ñu ngi lay woo ci biir RV bi ne la combat yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp allah on les porte aujourd'hui te yemee ñu ko Sénégal dañ ko doxal ci Sénégal ak ci sous région bi commencé ci waxtaan xool comment on va exporter sa modèle rappelez vous que yeneen sasan dafa waxoon ne diine bi dafa feeñ ci étrangeté maanaam soo fàttalikoo islam sax Afrique bii moo ko sauvé ndax ba jullit yi amee ay jafe-jafe màq leen daf leen gàddaay loo woon la première émigration ils sont venus en Abyssinie fii en Éthiopie ci biir Afrique moo sauvé l'islam ni mu amee woon dans le premier temps maanaam dans les premiers temps dañoo gëm noonu lay amaatee dans les temps derniers. ndax arab dafa tam wax naan al bidayatu fi nihaya wa nihaya fi bidaya donc dañoo gëm ni islam afrique noire moo ko ressouvé waat ndax aujourd'hui naar yi jaareen islam boo xoolee actualité bi tey ji di ngeen gis ni ku mel ni mohamed ben salman mbs bu nekk fële ci arabie saoudite mu ngi génnee projet wu tabaxal lu ñuy wax euh, mukaab lu ñuy wax al mukaab euh, benn projet la bi nga xam ne benn cube bu ngànd bi xam ne moom lay tabax foofu ca maq bi xam ne sax nar na muur kaaba projet cube boobu bu nu ma si ñëw léegi naa si ñëwaat peut ay fan yu néew incha allah ko comme ni ñu ko defee woon ci neewam projet neewam bi xam ne c'est un un projet des mondialistes waaye projet cube bi mooy l'apothéose en réalité cube bi euh, ñi xam euh, la la le bi nekk ci biir maçonnerie ak cube manam ci fi Salman bokk Mohamed Mohammed Ben Salman fi mu bokk te moom mu ngi bokk ci fu ñuy wax de Skulls and Bones Skulls and Bones ben fàttalante la bi xamé xam mu ngi nekk feulé ci Yale université Yale États-Unis Fraternité bobu c'est est une des plus anciennes aux États-Unis moo fi fii Kappa Beta fi Beta Kappa xam fi fii Kappa Beta donc euh, Skulls and Bones on l'appelle le the chapter 322 chapitre 322 donc ku chapitre 322 la base la relation avec le cube comprendre pourquoi Mohamed Ben Salman projet cube la Kaaba je rappelle juste que le cube fait 8 arêtes 6 côtés euh, non 8 sommets 12 arêtes 6 côtés donc 322 euh, 322 comprenez le euh, yi est multiplié par ngi ci 322 2 au cube mooy 8 3 euh, fois 2 fois 2 égale 12 c'est que dafa am benn symbole bi nga xam ne dañ ciy liggéey pas l'objet de mon de mon live mais dinaa si ñëw ndax Ben Salman boobu ba léegi euh, bàyyiwul il est en train d'accélérer la sécularisation de la Mecque il est en train d'accélérer ñuy yàqee donc lépp lu charia wala li nga xam ne diine ko tegoon mu ngi xool nu koy dammee benn par benn à terme li euh, Moustapha Kamal Atatürk defoon fa la ci Turquie ba ñu jógee ci empire ottoman mu xool nu mu yàqee dëkk bi def ko dëkku yéeféer ndax Atatürk boobu ci moom euh, franc-maçon la woon c'était un membre de la loge maçonnique noonu la Ben Salman bi nekkee un maçon bi xam ne accompli bi xam ne lu bon kese lay dox rey ay borom xam-xam la def Arabie Saoudite rey ay borom xam-xam ak jéem a xool nu mu démembrer ak démanteler l'islam ci Arabie Saoudite loolu moom c'est pas l'objet de notre débat waaye incha allah ci ñëw. bon le quatrième point bi vais ne moo ça va euh, parenthèse la sans parenthèse Je mais introduction on peut se laisser euh, quatrième le surnom de Mabba que j'ai adopté depuis la semaine passée je l'ai écrit sur ma page Facebook de même ñu may invité télé Mabba donc euh, j'ai choisi ce surnom là pour beaucoup de raisons sais pas si que ne peux pas en ci Je bi mais je na si spécial sur qui est Maba Diakhou euh, L'almami du du Rip du Saloum du Badibou euh, donc euh, Maba Mabba, nous mu extraordinaire dafa am quatre points xam rek bëgg naa ko bëgg naa ko génnee pour gars yi comprendre qui est Mabba lu tax Maba extraordinaire la première Mabba bu fi nekk Mabba a réussi à mettre en place ce qu'on appelle l'almamia kon ñun c'est un modèle par rapport ak ñun ñi nga xam ne qui nous réclamons du modèle prophétique ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu modèle Mabba Diakhou Ba a mis en place ce modèle là moom avec l'almamia dinaa si ñëwaat léegi lan mooy almamia bokk na si suñu suñu live yi mooy quatrième episode euh, bi mabba tuwab bi fi nekkoon sa daf ko nanguloon ne kii moom borom xam-xam la ñu la il l'appelait tafsir tuwab bi ñeen ñi dafa doon bind ay lettre li wax lu ko neex waaye mabba daf ko bind ko wooyee tafsir donc am na lu ko nanguloon ñu liir euh, accord de protectorat yi sax yi xam ne bind yu tuwab bi signé ak euh, l' ensemble des royaumes day gisee l' accord bi ñu signé ak waa Nioro bi nga xam ne ñoom Mamour Ndari ñoo ko signé. ak euh, ñoom Ibro Xujj ak ñoom nga xam ñoo remplacé woon Maba ginnaaw ba Maba euh, génne àdduna c'est le bi nga xam ne tubaab bi nangu na bind ci au nom de Dieu ci kaw gloire a Dieu euh, seigneur des mondes maanaam ki nga xam ne maanaam ñoom référence à l'islam la tubaab bi tàmbalee soo ko bind au nom du peuple français du gouvernement français nga xam ne kon déjà am na liggéeyu l'islam bi nga xam ne amoon na foofu waaye Maba c'est l'homme du consensus dans ce pays en réalité dañoo nëbb on a tout fait pour cacher au Sénégalais qui est Mabba Diakhouba xamul tax loolu ndax Mabba est quelqu'un qui il s'était inspiré du modèle prophétique sallallahu alayhi wa sallam ba euh, un l'islam islam politique et jàpp les bu de ko jàngalee au Sénégal ils vont vouloir réclamer un modèle islamique dans ce pays là moo Mabba Mabba a vivifié l'islam euh, de son vivant Maba est celui bi nga la bataille bi tax tay Sénégal nek 95% de musulmans bataille bobu la bataille de paté Badiane Maba moko woté won toutes les familles du Sénégal entier nous uy du Jolof du Bawol du Kayor du Fouta euh, tout le monde est venu répondre à l'appel de l'islam dama né xex boobu mamou aladi malik ay nijaayam ay mamam ñu ngi foofu maamu Cheikh Ibrahim ñas bu Kaolack ñoom Mouhamadul Amin ñas ak ñoom ay mbokkam ñu ngi fa woon Serigne Touba euh, baayam ak ay mbokkam yëpp ñu ngi fu woon mbooleem kilifa diine yi wax tey fii kilifa diine ñoom ñëpp seen famille yëpp ils sont ils étaient venus Maba est celui qui a dirigé près de mille familles ñoom ñëpp ancré dans l'islam di ay borom xam-xam di ay waliyu ñoom ñëpp mu boole leen jiite leen nga xam ne kon kii c'est un sur leader kon ndax ki nga xam ne moo jiite ay leader man kooku mun ñu ko woowee un leader kooku mooy Mapa Diakhou Ba ñu xeex l'islam am ndam le français am defet ba Maba confisqué ay ay ay canons li c' est une première euh, dans ce pays donc euh, Pina laprade a été blessé au cours de cette bataille là lu tax ma ne Maba est extraordinaire Maba est l'homme bi xam ne ñi ñuy wax fii tey Sénégal yëpp Maba mooy seen sëriñ ndax Maba ku xam taarixu Sénégal xam ni mom moy ki Cheikh Omar al Fouti denkon jox ko destiné wu tarix tidiane fi Sénégal maanaam suñu nee xalif général la tijaniya au Sénégal Ken, la moy al hadji Tafsir ma ba Ba mom moy xalif bi ndax mom El Omar denkon euh, Sénégal mom El Omar mu nek Mali di diggante diggante ak sa Mali ba Nigeria, yor Sokoto donc mabbo bobu mo jangal te mo défar euh, ay kilifa yu bëri aujourd'hui yoo xam ne ñoo défar Sénégal kilifa yëpp ils ont rapport ak MAP ñoom ñëpp sans exception euh, tey suñu wax waxu Proxaan jamono bee am na màggalu Proxaan euh, bu ñoom soxna maam Jaara Buso maam Mor Anta Sali MAP ba moo leen taggal Proxaan maam Mor Anta Sali avait rejoint MAP euh, ci ci ci combat am Cheikh Amadou Bamba adolescence am li ci bëri il a passé à Proxaan Proxaan y avait une orthodoxie bi nga xam ne c' était sous l' impulsion de mabba mabba a participé sax ci ci ci former. ku ñuy Cheikh Bamba mabba yamu ci moom Maba Cheikh Fodé Kaba Doumbia Fodé Kaba Doumbia bi nga l'islamisation au sud yépp si loxoom la jaar kooku taalib Maba Jaxu Ba la taalibeem la ma jaxate kala bi xam jangal jàngal na ñoom alaaji maa gëm sëñ jangal ñëpp jàngal na leen kooku taalib Maba la Lat la euh, Alburi Njaay Alburi Maba tax mu mu mu génn ci nguuram dugg dans le djihad Al-Bouri est sax en en étant djihadiste près du Niger Mabba ñoom Serigne Saloum ay si njabootam lañu Mabba ay généraux Mabba Mabba c'est plus d'une centaine de personnes des érudits la Mabba formé pare tas leen ci biir Sénégal Mabba était extraordinaire euh, Mabba son modèle nag moo nekkoon l'islam lii moo tax bëgguñu ko jàngale mais ñun dañu feeñal dañu fësal incha allah kii était Mabba Diakhouba donc euh, qui était cet allemand bi nga xam ne euh, jugul woon pour xeex au début dafa jugul pour jàngalee alxuraanam tranquillement Maba est un tombeur de rois païens sept rois dans ce pays sept rois la wax de yoo xam ne ñoom ñëpp seen dëkk dafa tere woon jaamu yàlla tere fa julli di buntu xatal jullit yi ba euh, moo ñëw xeex ak buur yooyu ray leen ba pare jël di musulmans teg leen fa pour ñu jiite dëkk yooyu donc nga war a xam ni kon macha allah ah, Euh, Allemagne Maba ba ñun en tout cas ñun au niveau RV suñu modèle la donc suñu modèle la donc sha allah waaw ma ba Mbacaan mu wax lu am solo ba était extraordinaire wax deug Yalla extraordinaire euh, au salon il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées nañu salon salon Saloum sax du salon mu mbey euh mbey turu nit la salon bi sax turu nit la nan euh, la def ba xex naka la Maba euh, sonné ba daal Rip le Badibou le ñoro euh, il yépp nga xamé man japp na ne Kaolack sax mooy le centre bi xamé c'est le centre spirituel du Sénégal Kaolack Kaolack man su ma amoon ndogal Sénégal moom laay capitale du Sénégal ndax moy dëkk bi xamé xam ne au-delà de l'aspect spirituel moy dëkk bi xamé mo ne nekk à équidistance avec toutes les régions du Sénégal pour une accessibilité Ziguinchor Tamba Saint-Louis Dakar ñëpp mu ngi moi le croisement du Sénégal pour délocaliser Dakar obligation la et nécessité la mais Kaolack dafa am une particularité extraordinaire quand était un centre bi centre xam il y avait eu y avait tout le monde les serres étaient là-bas les sorciers étaient là-bas les poulards étaient là-bas les wolofs étaient là-bas ñi il y a une histoire bu sori bi nga mais euh, peut-être c'est pas l'objet de notre débat Nous avons après ci Saloum avec nu islam doxee. Eh, depuis Mégane Bour Mégane c'était en 1493 premier Boursaloum eh, Mégane sax y a une histoire avec euh, Ali et les Bana avec euh, y a beaucoup d'histoires yoo xam ne loolu naa si ñëw dans parce que histoire Sénégal daf ma ñor man euh, je suis pas historien mais dama dama dama fonk histoire dama gëm ni ku xamul sa histoire tu es faible képp ku xamul yaay kan ak fa nga jóge amoo doole da nga neex a bu max tubaab bi nag il avait réussi le pari de nous de nous de nous déraciner bañ ñu xamal suñu histoire pour ñu bañ am ay revendication bu gars yi teeloon xam suñu histoire xam ñëpp ñi nga xam xeex ñoom Thierno Souleymane Baal ñu koy jàng école la révolution Torodo di jàng ñoom Mabba di jàng ñu bu baax dans le fond la Mabba def dañu jàngal ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Malick Sy buubu bu bundu jàngal ñu la révolution Toubnane la révolution des marabouts fii au Sénégal kon Sénégal yore kon de partis yoo xam ne islamistes depuis longtemps ay partis yoo xam ne taxaw woote ne ñun islam mooy suñu modèle

chaque fois qu'on va faire des parenthèses, ce sont des parenthèses qui vont nous rappeler et qui vont nous enseigner quelque chose d'important dans le pays. Ou quelque chose d'important sur le dîner. Et ñaari dafa am solo dafa am solo ñaari ñoo ànd ñun dañoo am euh, culture islamique. bi xam ne daf ñu gëmloo daf ñu jàngal nañu euh, al ilmu qabla al qawl wal amal maanaam xam-xam moo war a jiitu euh, wax moo war a jëf donc dañu wara a xam donc xam la tañu yàlla sante ya bañ nako sax ba xam la yàlla falee euh, ñëpp ñu mu fal ci ay yonent donc aadama alayhi salaam ba ko yàlla di fal ci kaw yonent ci daf ko xamal lu mu xamalul benn yonent ba mu ko xamul benn moo tax aadama nekk kilifa euh, malaaka yi donc euh, lu ma lu mu xamul benn lu mu xamalul benn malaaka ba mu woo ko ci malaaka yi ne ko lii lan la ak malaaka yi lan la malaaka yi xamuñu aadama ne kon yell mu idif malaaka yooyu donc yàlla saa yu falee rek c'est parce que dafa jox xam-xam donc euh, li moy à peu près yi xamé bëggon nako andi ko mom parenthèse yi xamé euh machallah allah ku Cheikh ibrahim Niass mom amirul moom mi ngi loon woowee jaxuba donc kilifa yi fi nekkoon Sénégal yépp ñëpp ils avaient une révérence extraordinaire euh, pour ma Diakhou Ba ñoom ñëpp sans exception parce que xamoon ki ma Maba donc tubaab bi xamoon ki kuy Maba tamit xamoon ko bu baax baax mabba suñ ko bàyyiwoon tuuti temps mabba bu daagul won somb Euh, bu fa daru won suñ ko bàyyatoon quelques années le Sénégal lepp la ma banoon récupéré bare tek ko ci bir l'islam tek ko ci islam bi iso ba ko on aurait eu aujourd'hui un autre paradigme dama ne Mambo sax bu génn woon aduna de ñu ngi waxtan barki dem rek de saat euh, le mabayen dafa tam ben xarit bi xamé ne Abdoulaye mu ngi fi ci bir lay bi deglu c'est un grand mabayen moom it sëtu mabba mabba jaxu la mabba euh, ñepp Sénégal Eh, ñu ngi waxtaan rek di xool dans quelle mesure la mabba naroon naroon jël dëkk bi ba génne fi bi et mabba su dundaatoon quelques années après euh, at bu mu génne àdduna l'armée de Napoléon allait allait dafa doon bàyyi colonisation bi pour bi dëkkam ça dafa doon bàyyi pour bi donc mabba a affronté l'armée de mabba Maba l'armée de de Napoléon la plus forte armée de la France mabba armée boobu la xeexal donc euh, sans concession. Euh, ak benn responsabilité xamal ko carrément ne jullit la fépp fu jullit am problème ci biir dëkk bi mu jug dem pour so pour sauver la fépp fu jullit dem donc euh, macha allah yàlla na yàlla yox ko leer jëfam yooyu yàlla bu mu nen yàlla na yàlla donnaloo ay mbóotam bon léegi nag j'arrive nag léegi sama tàmbaliwaayu euh, waxtaan muy introduction à l'islam politique Euh, fi may tàmbalee mooy ñun jullit yëpp nangu nañ ni islam euh, diine la waaye yemul ci diine civilisation la ñëpp ko nangu yow nangu ni islam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki ñu ko jàngal ndax yàlla moo ñëwoon kat laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon ñun am nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam un exemple accompli yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy suñu exemple mooy suñu dalil ñun n'est-ce pas euh, yonent yàlla Muhammad mooy suñu mooy suñu xaayit ñun waa les frères ñoo wax naan euh, muhammad qudwatuna ci wax naan ad ad ad ad sax ad jihad sabiruna donc ñoom dañoo amoon benn slogan bi nga xam ne euh, y avait quatre choses doon wax ne yàlla mooy suñu objectif yonte bi saa mooy suñu chef alquran dusturuna alquran mooy suñu constitution et le jihad mooy suñu mooy suñu mooy suñu mooy suñu mooy suñu méthode donc man loolu ñun on les réclame on le réclame dañ ko gëm tamit donc yonte bi salaam Euh, yalla yónniwu ko rek pour mu régler euh, diine yemu ci dafa régler diine naam deug la waye régler waale na pénc bi et alcorane mom le message coranique est clair Dieu dit dans le Coran que bàyyiwuma dara ci biir bàyyiwuma dara ma farat naa fil kitaab min shay ma farat naa yàlla na je n'ai rien laissé je n'ai rien omis kon on a bel et bien kon des solutions et des réponses euh, à tous nos problèmes dans le Coran déjà c'est une euh, première très dans le Coran war d'après nangu ko ñaareel ba que Sam fekk na que Medina est une ville une ville plurielle l'islam a toujours accepté la pluralité une ville plurielle nous avons di ko sur la, la, la, la dimension, sur le prisme de l'islam, sans pour autant qu'il y ait problème. am na jamono sa islam. Sànq maa ngi wax sànq en introduction mën leen d'accord nañ ni y un islam prophétique authentique et saint bi xam ne moom mooy islam bi nga xam daw na ci Médine mooy la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam boobu ñu ko bëggee teqali ak islamu tey bu am dans dans ce monde là uute na am. wute na am c'est très normal mooy que islam nu muy accommodé aux circonstances yi muy traversé ci lay produire ay réponses en réalité aujourd'hui ñu bëri ñu ngi ñu ngi ñaawal islam politique ŋàññ ko dinaa si ñëw bu baax a baax si biir suñu waxtaan y a des figures qui xam ne dañu jàpp ne les pères fondateurs de l'islam politique dans le monde figures bokk na si Mohamed al Afghani ñoom ñoom ñoom ñoom ginnaaw Afghani ñoom Mohamed Abdou ñoom ñoom Mohamed eh, Khan ñii la gaay jàpp ne ñoom ñooy les figures l'islam politique man d' accord ko d' accord ko eh, dam koy wax sama benn xarit temps yële ma ne ko eh, Jamal Afghani franc-maçon la woon ñi wax nii yëpp ay ponkal lañu ay boroom xam-xam lañu ay mufti lañu bind nañu ay téere yu bari ci islam di bind ci charia di leeral di wax lu lu extraordinaire dama ne Jamal Muhammad euh, Afghani franc-maçon la woon Muhammad Abdouh mu tamit Égypte franc-maçon la woon ñii ñëpp ils étaient dans les louches ñoom ñëpp. Euh, cheikh Ahmad Khan bi xam ne moom en Inde foofu dañoo jàpp sax moom mooy seen cheikh al islam waa ji moo fa gën a garaaw moo fa gën a yéeme moom tam franc-maçon loolu euh, afghan yi mu ngi bokkoon suñuy wax kawkabal charq fa la ñu kon bokk après mu dem bokk chapitre treize cinquante cinq ñuy wax loge treize cinquante cinq bu Égypte loge boobu ay boroom xam-xam ñoo fay bokk ay imam ñoo fay bokk donc euh, lu jar a bàyyi xel la. mu jóge fa après bokk Concordia ñëpp Concordia di nekkoon ñoom c'était maçon ñoom ñett ñëpp après mu jël mu jël bi créé na beneen loge sax tuddee ko Mahfal al Watani loge boobu ba ça existe en catimini parce que Gamal Abdel Nasser ginnaw sa réforme il avait interdit la maçonnerie en Égypte tëj loge nangu sa ay biens loolu am solo la donc kon ñett sont des figures chaque fois que suma ma les occidentaux ak ceux qui yuy wax.

Nous ne référons pas du tout à Afghani ou à Mohamed Abdou, dont on les, on les a lus. Nous savons qu'ils sont des am na lu ñu wax li nga xam ne lu wér la am tamit leneen li nga ne ko wax dafa bokk ci agenda maçonnique bi parce que agenda maçon franc-maçonnerie ci àdduna bi franc-maçonnerie dafa am objectif ak ambition éliminer toute forme de religion dans le monde loolu naa si ñëw léegi su may la mooy le paradigme islamique euh, par rapport au paradigme bi je veux dire kabbalistique et maçonnique mondial bi nga xam la nanguwul ci àdduna bi dafay xool nu mu xeexee diine yi nu mu yàqee diine nu mu éliminer diine yi la waxul ci Mohamed Abdou ak Afghani gars lay wax la non Iqbal Mohamed Iqbal c'est un penseur révolutionnaire c'est un libéral nanga mom le Bergson des musulmans euh, Iqbal euh, compréhension islam jambar la il a beaucoup écrit mais Iqbal tam du référence islam politique c'est n'est pas la référence. Iqbal euh, était un homme de lettres, un philosophe. Bachir. Euh, il a fait un sa thèse sur Mohamed Iqbal. Donc Iqbal, euh, d'où référence ni wax islam politique. Il n'est pas notre référence en Donc il était libéral. Nous, déjà ñoo comme sax un musulman ne pas être libéral Il ñëw la mooy courant courant yi faut la jóge ces courants là donc moom il parle de reconstruire la pensée religieuse de l'islam la pensée religieuse Jésus n'a jamais été détruite pour le reconstruire. Elle n'a jamais été détruite. Elle a toujours été là. Il dafa am Amalgame amalgame. bi mooy dafa am ñu des gens qui a dellu euh, situation Médine madame, on doit reproduire exactement la cité de Médine ñu jàpp la cité de Médine réalité ou Médine c'est une réalité géographique historique anthropologique et culturelle qui est là bi nga xam ne mun ñu ko dupliquer ci bi sans ñu ñu jéem créer créé une structure de médine à Dakar wala en Guinée wala au Mali non c'est n'est pas possible C'est juste impossible li moy premier écueil ñi nga xam l'islam islam politique. le deuxième dafa am ñi xam ne ñoo japp ni non euh nous euh, ñom dañu comprendre on n'a pas encore épuré l'islam de la culture arabe Il y a des faits xamé de du islam l'histoire des arabes C'est la culture arabe bu gaay yi jël boole ko japp ni islam la ce n'est pas l'islam li tamit problème la manam a-t-on réellement épuré l'islam a tel enseigne mën a comprendre ni li islam la li tradition arabe la am sax ñeen ñu dem ba gëm ne arabe yi seen xet mo gën ci xet yi ndax la langue arabe mo gën ci langue yi ni c'est pas vrai ñi du jàngale islam islam c'est une c'est une c'est un c'est un vivre ensemble islam c'est une religion bi xamé dafa nangu la diversité islam dafa respecter toutes les cultures islam jël benn culture qui ko benn kii moo gën islam loolu c'est par l'islam du prophète l'islam prophétique bi tamit sam jàngale lii bokk ci l'islam nag dynastique bi dynastie ko si après si biir ay série euh, de live les dynasties étaient fondées sur famille famille famille la dynastie omeyat ñoo jàpp banu ñi ko doon jiite xulaf seen xulafaaw yi ay ñoom Muawiya la bu fi jógee ñoom Yazid moo ko moo ko wutu extra extra Omeyyade yi peut-être man kenn laa si jàpp ne ku baax la mooy Omar Ibn Abdel Aziz donc moom kese ci baax donc pour dire que rek ay dynastie amoon na fi jamono lislaam ñu am ay nit yoo xam ne jël nañ leen ñi nga xam ne ay taabiin lañ ak ñi nga xam ne ay taabii taabiin lañ ñi nga xam ne bind nañ ay xadis yi nga xam ne xadis yëpp c'est pas vrai yéen tout ça mos ko wax ils ont forgé des hadiths ils ont créé des hadiths di ŋàññ ay saaba yu baax donc lii xew na ci biir lislaam moo tax mooy l'islam dafa am beaucoup de choses yoo xam ne ñu bëri gëstuwuñu ko l'islam dem na sax ba instant bi xam ne sax yaayu yaayu du racisme en réalité racisme ndax boo xoolee ba ci saaba yi saa sam na saaba yoo xam ne bu yonent bi saa sam génnee àdduna dañoo génn ñoom dëkk bi ndax ils étaient plus euh, xam nañ ni idéal boobu yonent bi doon tabax gars yi ñu fa nekkoon ils ont ils étaient rétractés loolu c'était normal So ko khilafa Sadiq sax amna ay yu ne fayti zakat dañuy julli euh, wor on va voir mais zakat ko donc pour dire il y avait des gens qui n'avaient pas compris ce que c'était l'islam donc euh, nagam ñooñu les fondements sax xamul sax en ce moment l'essence l'islam bien fala bëgg gis ñu l'islam l'islam donc l'islam politique il ñu ñu koy théoriser Ala al Maldoudi, euh, Ibn Hadjar. donc ñun on a beaucoup de euh, borom borom borom les prolegomènes Ibn Khaldun nga a fait li mu def euh, un travail extraordinaire donc sociologie aujourd'hui la sociologie moderne bi est bëgg attribuer à Max, ñun gëm na ni Ibn Khaldun en est est le père fondateur la sociologie moderne donc il n'est pas le père de cette discipline là mais donc dire que il y a eu de la production intellectuelle durant tous ces siècles là xamé xam ne ñu bind ñu ngi bind di wax di joxe xalaat joxe xam-xam euh, islam politique mënul ignorer lool yépp way ñun cantonné wuñu fofu dañoo bëgg ñu déllu ci alcorane nga xam les bases de l'islam politique sont dans le Coran en réalité bon alcorane nak dafa am deux problèmes le premier problème moy yàlla moo ñu xamal ci alquran ne dafa am ay aaya dafa am ñaari xeetu aaya ndax su alquran waxee ne wallazi anzala alayka alkitab yàlla ne kat yonent bi saa sam ne ko kat man maa wàccee ci yow téere bi mu ne minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab mu ne am na ci téere bi nag ay aaya yoo xam ne aaya yu leer la aaya yooyu ils sont ils sont clairs ñoom ñooy la base du livre mu ne wa uxarun ak yeneen aaya nee nak dafa am dafa ay lent lent. xam pourtant ces versets là ils ont tous touche des versets normatifs versets yi aujourd'hui am ñuy warante té sont réellement du ay du ay du bokku ci ay sont la donc sont la yi qui vont prêter à équivoque mais c'est normal c' est normal surtout dans le champ de l' islam politique c' est très normal parce que dans le champ de bu ñu fàtte ni l' euh, diine bi maanaam diine islam diine bi dafa lay tàmbalee diine bi dafa am juróomi juróomi mbir dafa am juróomi degré juróomi mbir mooy l'islam l'islam nag fii gars yi ñoo jàpp ni lislaam mooy mooy mooy li ko tabaxee maanaam shahadatu allah da nga gis man bee passé barki démb non astafurlah semaine bii passé weekend bi dama toog sama sama sama sama sama sama yeneen bébé yi donc euh, ñi may jàngal ñoom dama la mooy premier hadis ma sax xaw ma premier hadis <laughs> donc mais macha allah man leen léegi man xaw ma ko jàngal leen ma ñu ne ma premier hadis mooy buniyal islam ala xamsin ñii ñoom ñoom amaat la ñoom amaat ñoom soo ñoom Mouhamed ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay xale yu ndaw la kenn amatu dix ans euh, kii quatre cinq la am euh, kii huit neuf ans et cetera mu leen bon ok ñu buñal islam laa xam si ne waaye loolu lu muy tekki ñu expliqué ma shahadatu an laa ilaha illallah wa iqamati salaa wa itaay zaka wa wa wa wa sawmu ramadan wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila mu leen ok c'est excellent ñu ma lii mooy islam On est d'accord mais ça ce n'est pas l'islam. mais c'est bien au moins nous avons dit hadith bi xam ko l'islam. Je vais islam Moi, Je jox une une métaphore pour nous avancer vite ma métaphore est la suivante boo soxlee tabax tabac, parce que la hadith en question parle de tabac. buniyat le verbe bana c'est le verbe construire n'est-ce pas bana donc euh, Islam à la On a bâti l'islam sur cinq piliers. Cinq piliers, ça ne signifie pas que l'islam est islam. C'est une compréhension Cinq piliers ne signifie pas que cinq sont islam. C'est comme l'un, on a construit ma maison sur cinq facteurs. Le fer, le ciment, le sable, l'eau avec euh, le béton mais mënuma wax ne kër l'île la lii mais les boo ñëwee si kër doo gis tu ne vois pas de béton tu ne vois pas de fer tu ne vois pas l'eau tu ne vois pas le sable c'est pas du sable tu vois une maison qui est prête mais l'île est matière première mais on ko et qu'à chaque centimètre carré euh, ou le millimètre carré du mur de ta maison, effectivement, il y a du sable, il y a du ciment, il y a de l'eau, euh, etc. Islam non le y nous avons tabac l'islam qui 5, mais il n'y a 5 000 islam. L'islam, 5 000 là. nous dougale 5 birles. Il n'y a pas de bâle, mais il y a. Djuroum, il y a 5 000 lii mooy lislaam lislaam aqida la d'abord benn aqida la c'est une c'est une c'est une c'est un c'est une idéologie y idéologie bi xam boo ko amul tu n'es pas musulman te idéologie boobu gis naa Sénégal fii ñu bari ils ne l'ont ndax boo demee bay discuter la sagesse d'Allah subhanahu wa taala wala pouvoir d'Allah subhanahu wa boo koy discuter mooy si islam l'essentiel l'islam yow amuloo ko

yàlla docteur libéralisme bi nga xam ne mooy l'essence même libéralisme donc ko xamul xamul libéralisme n'est-ce pas donc loolu mooy la base donc ginnaaw aqida boobu dafa am lu ñuy wax ay axlaaq maanaam dafa am jikko bi nga xam ne mooy la finalité de l'islam l'islam li lay sant ni chaque jour c'est un ce sont des moyens ce n'est pas la fin la finalité dafa am lu ñu bëgg produit bu ñu bëgg nga mel bañ na ko sax ba julli nga xam ne mooy mooy jaamu yàlla bi gën a kawe si jaamu yàlla yi ginnaaw zikr julli si moom dañ la wax julli lan la inna salaa tanha anil fahshaay wal munkar donc julli bi julli lañu la ko ne comme un a une finalité à la prière mooy la prière doit def yenn la la réalité axlaaq mooy la comportement mooy réalité bu ëpp solo ci biir diine la preuve yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ko yàlla yónnee ci jikko la ko taggee yàlla tagg ko ci ay pouvoir magique tagg ko ci ay maqaama tagg ko ci ay xam-xam tagg ko ci ay richesse tagg ko ci dara lu may si jikko wa innaka la ala xuluqin azim jikko la ko taggee jikko lu am solo la mooy li ëpp solo yàlla fa am jikko bu mu bëggee jullit jikko woowu quel soit li ngay def si ay jaamu yàlla jikko yu lislaam nam si jullit boo ko amul sa jaamu yàlla yi amul solo c'est comme nga am feebar dem ci médecin mu jox la ay médicaments médicaments yi nga koy jël pendant des années te feebar bi dindeekuwul changé wul médicaments yi amul ben sens ya xaalis la tu dois laisser, laisser ces ces médicaments là ndax le but c'était pas de boire des médicaments chaque jour le but c'est d'être sain manam wër mo tax juk xam na comment fi bëgg waxé donc euh, jikko coup, moy la finalité de tous ces actes yu yàlla jox. par exemple jikko jullit mënul fen par exemple fen moom jikko jullit jullit mën na mën na faqasalu ci ay ay bàkkaar jullit yaa yonent sax laaj na ko ndax jullit tey naan sàngara mu ne si jullit mën a naan mën na faqasalu naan waaye mosul jégaloo mën na ko jégal ndax jullit mën a njaaloo mu ne waa si a njaaloo njaaloo c'est un péché de la chair la c'est waaye ah waaye nangam ak nangam bi kay def ci dafay fen dafay non c'est impossible jullit mu fen c'est impossible donc fen bu jikko c'est finalité maanaam nit ki yaa ngi fen lepp li nga ya, si jaamu yàlla xam nga ya, si jaamu yàlla yi baaxul baaxul baaxul et c' est pas agréé ndax su baaxoon agréé war na la faj maanaam premier feebar muy fen feebar boobu nga si dañ rëy muy al rëy rëy lu bañ ndax sax yàlla si iblis rëy la ko yàlla dàqee ba mu ne euh, euh, tant nañ iblis na ko mu sujjóot euh, fa sajadu mala ñoom malaay yooyu yëpp fa sa sajadu illa iblisa aba bara gis nga baat bi laa sonoon bara Iblis dafa bañ ba pare dafa rëy était animé par l'orgueil l'orgueil n'est pas un du jikko brunek, c'est pas possible donc il y a des péchés yi xam ne il y a beaucoup de péchés yi xam nay donc euh, jikko djut mënu ko jikkowu kon il a raté le coche de dëgg yàlla kooku dafa dafa am na lu mu raté daal ndax euh, jikko jikko yi moom l'islam dafa am benn lot de de comportement ils sont presque soixante dix soixante douze lots jikko Ils sont des minima des fondamentaux peut-être un journal de life, spécialement yan jikko mooy euh, hadaful islam islam la mooy ay ahdafam ci wàllu axlaaq donc kon deuxième réalité wu diine bi deuxième pilier islam mooy jikko ñetteel bi mooy asiyaasa mooy la politique nag fii laa gis ni dañ fa ragalloo juut yëpp nax leen bàyyiloo leen ko jul tamit gëm ko toog jàpp seen ñàmbur l'islam bayiwul penc bi ñi euh, koy ñi koy xoolee di ko n'importe comment islam bàyyiwul loolu islam dafa am une vision de comment on doit gérer la cité et loolu du kese gérer la cité euh niki naka ngay dundé ci cité bi ndax la cité moy moy régler ñu ñuy dundee la politique moo gérer la politique moy moy moy moy moy moy défar naka ñoo la jëflante politique mëna sax dem ba instant yoo ba ne julli nee fi fii au Saloum dans des royaumes fii près du Saloum y' a des buur yoo ya xam ne nañ seen dëkk bi fi kenn fi julli judd fa nek et e des musulmans ont été obligés soit d'émigrer wala tok fa di laqatu donc ba ba ñëw libérer len donc la politique détermine les grands axes de la cité donc politique bobu elle est très importante sur le plan islamique motax siyasi moy troisième fondement ginnaw suñu waxé ci walu aqida ak ci wàllu euh, ay ay akhlaq siyaasi mooy taxaw ñeenteel bi mooy al muamalaat mooy les rapports l'islam quatrième pilier mooy les rapports qu'on a entre nous l'islam a régenté et a réglementé yan rapport ñu war a am ak bopp mooy àq yi xam ne danga ko ameel sa bopp boo ko deful yàlla dina ci àtte ndax si jaamu yàlla yi ko bokk ameel sa bopp ay àq yàlla réglé na àq yi nga ameel say morom nit yi

ndax le problème écologique actuel est un problème sérieux bi xam ne jaaxal na àdduna bi yëpp waa GIEC ñëpp ñu ngi bind di cëppi cëppi di yuuxu dañoo bàyyi yoon te yoon bi islam joxe na ko bu yàgg on va y venir incha allah ci naka la ñuy régler la problème actuel bu àdduna bi topp donc l'islam a réglé la mooy suñu rapport kon ñu mag l'écologie ñu laa la l'environnement ñu mag l'écologie ñu mag la nature ñu mag mala yi yan rapport a un rapport qui est important. ko islam maam mu amalaat yi tous les jëflante alaaqaat yëpp yoo xam ne les rapports que nous avons avec autre que nous dans la société dans la umma je vais préciser que umma renvoie à une communauté bi xamé hétéroclite ay musulmans et des non musulmans ñoo fa nekk loolu umma il s'agit pas de ay musulmans kese kese nek fa islam raciste islam euh, ñakul baña a xajoo ñeneen islam dafa xajoo ñëpp tout le monde a sa place dans la cité il faut ni xam loolu tam bu un mauvais procès à l'islam comme si l'islam tente de convertir tout le monde par force ce qu'il faut. l'islam sa vocation n'est pas de convertir les gens euh, barki de maa wax un ami de moi, ma wax mais dans l'hérésie de l'islam ndax l'islam traité ndax islam dafa ne tout le monde ko war a jàpp ko mais rey ko en vertu de quoi pourquoi ku tubbi war ko Ce c'est pas notre rôle euh, ma koy jox l'islam... Euh, exemple Abdullah ibn Jahsh il y avait un frère baptisé ci ibn Jahsh qui bokk na ci premier scribe yu bindal yonte bi sallallahu alayhi wasallam yu bindal alquran ay ki dafa murtad dafa dafa dafa murtad ci diine bi diko murtad lo lan la alquran wacc na ay aaya wacc na yonte bi sallallahu ne ko bindal nangam aaya wacc na yalla dina nangam bindal muy bind di bind di bind ba fin bi ni mu waxee yonent affaire bi rafet yonent moom mu ne fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin waaye eh waaye allah yàlla daal bar yàlla daal béni soit allah subhaana taala may xam ne mooy kii xam ne moo dàq dàq moo dàq sàq yonent bi sama jot ndigal ci wax googu ne ko bindaale ci aay si aayam la bokk ci révélation bi la bokk wax boobu moom daf ko gàttu mu nekkoon kii du yonent kii kon dafay wax yu neex yi rek soo rafetee mën ne ko bind il c'est pas un prophète il a il a abandonné l'islam pourtant yonent waxu dañ ko rey daf ko respecté il a le droit de ne musulman chacun de nous a le droit de dire que je ne crois wala je ne crois pas ku taxaw ne man du ma jullit chrétien la bëgg nag c'est son droit donc islam amul problème boobu moo tax ma ne on fait de mauvais procès te loolu xam naa naa si ñëw de fond en comble suñuy waxtaan euh, dafa am benn intolérance bu ñu bëgg jël def ko la marque de fabrique de l'islam l'islam n'est pas intolérante l'islam est très tolérante l'islam est très responsable am na li xam ne l'islam moom waxtaanu si kafu ci am leen di xam ne ko bàyyee kenn fu nekk ne ko ko yàlla moo ko a atte loolu c'est pas à nous de le juger donc muamalaat yi mooy le quatrième point le dernier nag mooy li ñuy wax al ibadat mooy les actes d'adoration mooy zikr woor euh, ñaan ndax ñaan tam ci ibaada la bokk donc euh, dem umra dem aji lépp li nga xam ne dañ koy def ci sàkku rapproché wu yàlla subhaanahu wa taala di gën a dëggal sa condition de serviteur ne man jaam kese laa duma dara lii mooy ay acte de dévotion cinq yi mooy les cinq piliers de l'islam dans son fondement premier cinq yi mun naa ko àndiwaat ci ñuy wax les cinq caractéristiques de base de l'action islamique le premier ce sont les objectifs On objectif objectifié finalité il faut nous comprendre sur chaque action sur chaque recommandation sur chaque prescription sur chaque ordre quel est l'objectif et la finalité Il y a le des choses pour les robots. non non son message c'est pour les gens deux raisons donc objectif finalité le deuxième point ce sont les règles et les normes dans les objectifs et les finalités il y a des règles et des normes règles objectifs yi on on a fixé des règles en fonction des finalités on a fixé des normes en fonction des objectifs euh, mënoo comprendre comprend l'idée des mots comme la relation qu'il y a entre al haq et al haqiqa le Haq, c'est la vérité c'est l'expression d'une chose Ouais, la Haqiqa, c'est la réalité c'est la vérité derrière cette vérité là nekkul n'importe qui moo fa mën a yegg donc ku xam xàq te eggoo ci xaqiqa dese nga comprendre la chose maanaam amoo compréhension de la chose tu tu tu sais la chose mais tu ne connais pas la chose ndax savoir et connaître ci biir islam li ilm la irfan la maanaam aalim bi ak arif bi ñoom ñaar duñu benn ci biir islam Alim, il est dans des sciences écrites des sciences scripturales maanaam ay sciences scripturales donc c' des sciences yoo xam ne ñu koy bind di ko toxal xam-xamu diraaya nga koy woowee xam-xam bi nga xam ne xam-xamu riwaaya wa diraaya waaye nag al aarif moom dépasse niveau boobu moom mu ngi ci wàllu xam-xam bi nga xam ne ilmul man ilmul mafhum la du ilmul mantuqa waaye ilmul mafhum maanaam kii xam-xam bi mu am min waraay uqul mu ngi ci ginnaaw cukkeel yi maanaam ci ginnaaw xel yi xam-xam boobu la jot donc loolu kooku aarif lañ wax donc pour dire que rek. ñaari stade yi ils sont ils sont dañoo tagga dañoo takkaloo waaye du benn objectif finalité euh, norme règle ñetteel degré bi ce sont les méthodes et les procédés ndax y a des objectifs certes d'un côté y a des règles et normes bi xam ne moom mooy organiser la voie waaye nag y a la méthode y a les méthodes ak euh, les procédés lii rek moo andi ay turuq toutes les, ce qu'on appelle ils ont des méthodes différentes, tout en respectant les mêmes règles et en ayant les mêmes objectifs et les mêmes finalités. ils sont dans des méthodes différentes. et méthode ils s'avalent. Quand on connaît, suivant méthode, il y a des preuves, il y des résultats, cette méthode est bonne. une méthode, c'est qu'il y a méthode, c'est sujet, c'est juste un moyen, c'est pas la fin. peut jullit ñu si bëri xamuñu sax la mooy islam ju nekk xamuñu ko bu ko xamoon yeneen débat yu stérile yi waruñ cee nekk on a des choses très très importantes très urgentes jullit yi war a waxtaanee aujourd'hui après pare ko donc au delà des méthodes euh, et procédés il y a les moyens il y a les moyens et outils les moyens bokkut ak les méthodes on a des moyens on applique des méthodes on respecte des règles

il y a un esprit musulman, il y a un dogme de l'islam, dogme qui est, qui est inflexible. Donc, si vous avez un dogme de l'islam, il y a un dogme de l'islam qui est inflexible. Donc, vous comprenez que 5 en 5 là, c'est le deuxième 5, c'est les caractéristiques. Il y a un troisième 5. Et 5 qui, ce sont les 5 qui qualifient toutes les actions dans l'islam xam une action peut être haram il faut que ñu mën a comprendre balaa politique islamique il faut nous comprendre la mooy haram ak quel est le champ du haram la mooy li xam c'est interdit et que loolu amul débat waruñu si débat yàlla may ñu possibilité de débat leen ci je donne l'exemple de l'homosexualité dafa haram donc lii amul démocratie amul esprit d'ouverture amul tolérance c'est pas c'est pas c'est faux lii c'est des paradigmes importés paradigme tubaab bi la ñu paradigme yu évoluer wuñu ci donc le haram est clair à à côté du haram y a le halal n'est-ce pas ya li xamé dafa dagan du dagan nak ñokoy jëfëndiko ñokoy xol ñu ko organiser ba tey daal avec parcimonie bañ ko yaq ndax yalla daf ñu daf ñu obligé ñu bu leen yaq la israf fi din wala din fi israf donc kon le gaspillage bi nga xam lenn la ci pendant paradigme bi nga xamé moy paradigme occidental moderne le paradigme positiviste le paradigme kabbalistique paradigme boobu monde de la aujourd'hui il y a une surproduction dans l'humanité on produit presque pour 12 milliards de personnes nous sommes à peine 8 milliards il y a une surproduction bi c'est voué à YAK, li et la nature a sa comptabilité elle tient sa comptabilité donc euh, nous sommes ci ay les yoo xam ne les tôt ou tard nous allons payer les pots cassés donc le paradigme le paradigme de je le répète toujours et sans complexe man vraiment si côté boobu mooy intellectuel musulman Nous suffit. Au ma complexe wax sama diine dire ma et j'ai les moyens et les arguments scientifiques de le défendre donc je ne suis pas dans dans dans le fanatisme et non l'islam l'islam on a ko prouver alors ça mun naa prouver existence sur un point de vue scientifique et physique donc pour dire que nous nous devons nous armer de connaissances en réalité dans diine Dans il y a fi ñu ci xam-xam xam-xam lépp lu war a doxal ci biir diine bi donc kon le xalaat tamit en champ clair nga xam ne yàlla am na lu mu permettre lu mu maye parce que après tout adduna bi addunaam la moo ko moom daf ñu jox une gestion euh, encadrée une gestion euh, je vais dire limitée euh, waaye nag joxuñu benn licence à faire tout ce qu'on veut comme on le veut noo yàlla may ñu loolu non yàlla joxuñu loolu après le xalaal yaa li nga xam ne euh, mën nañ ne makruh la ci biir ci cinq yi xam ne mooy les caractéristiques makruh boobu mooy xam ne ko sib mooy li nga xam ne soo ko defee amoo bàkkaar waaye gën nga bañ koo def dans l'islam politique on va bien reconnaître on va bien travailler dans ces trois derniers là muy la makruh am li nga xam ne ñooyee le mandub le mandu mooy le louable li nga xam ne il est louable maanaam li nga xam ne on ne t'oblige pas ce n'est pas une obligation de le faire mais ce ko pas mooy faire. nest ce pas Et le dernier élément cinquième c'est le moubah. Le moubah, mu le mooy c'est le légiféré ni obligatoire ni interdit ni réprimé ni louable on l'a laissé à votre entière responsabilité votre entière appréciation def leen comme voulez. Il faut que y a la Il y a la shura on doit être dans un consensus on doit on doit se consulter pour vous verrez que le champ de l'islam politique se trouve davantage al al surfer sur un point de vue coranique et sur la tradition afin d'apporter des, des réponses claires par rapport à ce que nous sommes en train euh, de vivre rappelez-vous l'islam, islam elle n'a que quelques situations islam mën na nekk dans situation d'un pays qui est déjà islamique tout est islamique le paradigme est islamique les populations sont musulmans islam nous muy ci dëkk su ci il est anti islamique le paradigme est satanique ba pare ñu tënk fa jullit moyen d'action un déploiement si il est neutre on n'interdit pas l'islam, on, on, on, on, ne sacrifie pas, on ne s'acharne pas sur l'islam. Donc on, vous laisse vivre cette dîner, il n'est pas islamique. Donc l'islam, qui est sauf un équilibre, nous nous comportons L'islam a des comportements différents. L'islam peut avoir un comportement bien, mais agressif et violent par rapport à l'environnement, il Ça m'a à la violence, c'est possible. Euh, violence ce n'est c'est pas c'est pas une action mais c'est une réaction l'islam je euh, ne présenter présente pas la violence mais mais dans un dans un état de révolution de proposition l'islam je dans la dissidence je suis dissidente par rapport à un modèle qui est là l'islam je suis coopérer par rapport à un modèle qui est là-bas donc l'islam n'a pas la même posture partout dans le monde il faut comprendre que l'islam s'adapte par rapport à la situation bu objectif yi dans le court moyen et long terme ñett jarna jar xel que justifie l'islam politique dama bëgg rek tay du dugg sax ci ay yu ndax xam ni dans nos prochains numéros on aura l'occasion de fouetter et d'entrer dans le fond du Coran ndax euh, sur le Coran nous avons 6236 versets Euh, plus de six mille versets dans le Coran li ciy wax ci euh, droit pénal ci charia encore que charia sax tekkiwul la loi charia signifie source elle signifie source elle signifie voie koñ voie sax charia da koy tekki day tekki un réservoir réservoir de valeur charia da koy tekki donc moo tax ma ne même les mots sax ñu ko contenu yi ñu ko jox. daf si xuuxal ay jullit en réalité Euh, je disais que sur ces versets là li ëpp ci l'islam lu muy régler l'islam règle wul ay mbiru ku def lii def leen ko lee dóor leen kii rey leen kii dagg leen bopp kële fóot leen kële non non loolu c'est vraiment l'islam réglé lii c'est pas matul cinquante versets dans le Coran dans tout le Coran nag laa wax matul cinquante versets il y a des aspects du droit constitutionnel il y a un droit économique dans le Coran un ami à moi il est là-bas en Égypte a fait benn tafsir tafsir Coran bi nga euh, ne iqtisadiya euh, le Coran daf ko lire avec lu nettu économiste di génnee ay principes économiques euh, dans le Coran qui sont bien professionnels, bi on a étudié ensemble travail bu am solo de pour dire que foofu la ñuy xaar aujourd'hui les leaders et les les les penseurs musulmans Madame, qui xool euh, naka la l'islam di joxe ay solution par rapport ak problème ndax l'islam toujours dafa ñëw andi solution dafa japp une solution la et le musulman musulman bu nek kenn ku ci nek si ñun moom dafa jàpp ni solution la par rapport ak jamonoom ndax yàlla daf ko daf ko wàccee jox ko benn kilifteef jox ko masuliya une responsabilité da ko nag doxal responsabilité boobu donc euh, les versets qui traitent de l'économie de la gouvernance gouvernance bi nga xam ne naa si ñëw bu baax su may dugg ci modèle allemand. almamia lan mooy la gouvernance bu Islamandi lan mooy li ñu a xam dans le droit bancaire parce que y a waree réformer économie dëkk moom cinq yi faut ñu réformer ko faut qu'on réforme la monnaie faut qu'on réforme la la politique de change faut qu'on réforme la fiscalité ndax Islam dafa am fiscalité boobu faut qu'on réforme euh, la banque donc faut qu'on réforme tamit euh, le budget maanaam juróom yi mënoo xaalis te réglé woo monnaie banque fiscalité change avec le budget donc il y a des versets qui traitent ce sujet là et il y a versets le droit commercial mais l'islam c'est plus de 40 versets Mais c'est du droit commercial pur 70 versets 71 versets le droit commercial c'est le droit pénal le droit du statut personnel le droit droit de la famille le droit de la famille il ayant la andi droit pénal mais pourquoi kon léegi aujourd'hui ça yu ñu que charia wala wax droit rek xel ils sont braqués droit pénal d'accord, loxo dóor c'est une construction coloniale c'est une construction donc il nous faut des gens ont travaillé pour ragalo jullit propre religion on savait que religion est nii même avec le paradigme bi xam choisir évoluer depuis maintenant plus de 200 ans maintenant sax presque trois cents ans un paradigme bi nga xam ne kii euh, kii qui est qui est kii est anti-religieux d'abord qui était anticlérical au aujourd'hui qui est anti-religieux un paradigme qui est sataniste paradigme boobu naa si ñëw léegi fan la jóge bon euh, premier aay ba bëgg a andi tey deux aay ak laa bëgg laal ay aay yoo xam surtout Chouara surtout Chouara Euh, déjà ça, le tour grec, ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas Chouara, ça, ça, parle de la consultation de d'Issou. Faites que les musulmans, ils n'ont pas le choix. Et alors, nous c'est une obligation. L'obligation, moi, wa'tasibu bi hablillahi jami'an. Madame, yéen mom ensemble. Japandu len ci ci buumu yalla bi ensemble wala tafarraqu. Fexel bu len bu len outé. Ne soyez pas désunis. Votre force et dans l'union et dans l'unité waxul y ne war ñu am divergence devons avoir des divergences mais euh, waruñu àndi euh, divergence bi ñu am bokkut ak euh, adver adversité adversité moom yàlla de sant et là, ça nous rebondit ci sànq waxu le président Macky Sall ba mu demee dafay protéger sëriñ avec nangam mais attention sëriñ ay nit lañu fii au Sénégal. sëriñ yëpp ay nit lañ dépassé wuñu maqaama nit ñoom ñëpp sans exception léegi nag taxaw ŋàññ sëriñ di ko saaga di ko xas c'est pas normal même ku dul sëriñ sax taxaw ŋàññ doomu aadama di ko ŋàññ di ko xas di ko saaga c'est pas normal doomu aadama war na am opinion ak avem si lépp lu xa lu xew c'est son droit et su amee avem kenn ko xas dañoo dañ ko war a nangul waaye nag doomu aadama nag bu waxee si lu ñëpp bokk ku nekk dafa am sañ-sañ taxaw ci xalaatam tamit donc sëriñ tamit ñu amee droit au respect noonu tam le citoyen tamit amee droit euh, de de de de de se si lépp li xam dafa laal diine parce que diine même sëriñ moom la ko man diine yàlla bi d' accord ma fi benn sëriñ ëppale ma ci d' accord ma ko wax dëgg yàlla kenn ëppale ma ko si ñoom donc amu ci kenn tam ku ma nangu ne mooy autorité diine bi fii si dëkk bi wax dëgg yàlla nangul ma ko kenn Sénégal wax dëgg yàlla ndax diine moom dafa am ay exigence exigence yooyu nit ki su ko taxawee matal ko da nga koy nangul xam ne kii sama kilifa bu taxawul ci loolu nag wax dëgg yàlla gi sama mbokku jullit la rek du sama kilifa si diine bi diine bi moom kilifa gi leer na yàlla xanaa ak imam yi xam ne yàlla mooy di tànn te imam yooyu am du problème sant imam yooyu wax dëgg yàlla leneen la ay maqaama la euh, ay cër la moo xam ay xutbu la loolu loolu ku nekk gëm-gëm ci di am xam ne gëm nañ seen xutbu amul seen droit la man dama gëm ne am na ay aqtaab yu yàlla yàlla teg ci kaw jamono gëm ne am na ay afraat am na ay awliya donc té yalla mom xolul sant pour joxé ko ndax la wilaya n'est pas héréditaire ya ko Sénégal lañu bëgg japp la wilaya héréditaire donc un seul sëriñ bu taxaw wax ben affaire ci diiné mais diiné diiné outé la même jamono sahaba yi sallallahu alayhi wasallam dañ doon uute saxaaba dafay taxaw wax nangam kay dafa ñu sopp d'accord ak yow li ak li ak li yéne bi sallallahu alayhi wasallam dafa doon wax sahaba yi ne attention li nga wax ni ci ban maqam nga waxé ndax rasulullah moy wax wala boog Muhammad ibn abdullah moy wax bu dee rasulullah mooy ki yàlla yónni soo bàyyi noppi nañu amuñ ci avis booba alxuraan dafa ne samiana wa ataana waaye bu dee ibn abdallah booy wax dir ki mooy wax ñun am nañ suñuy avis on va les on va les défendre et les sahaba ont été en contradiction que Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur beaucoup de thèmes alxuraan ñëw dëggal lu saaba yi waxoon donc attention dire son avis est une obligation te kenn mënu ko tere kenn ci dëkk bi nag loolu dama bëgg tamit état ak ñiy wax ak ak naxasaalekat yi ak ñiy xamb taal ak ñu dërëm ak ñuy neexalaate ak ñuy ngéwalu pour ñu jox leen dara dama ne kenn mënul tere jullitu Sénégal yi ñuy wax ci lislaam seen xalaat kenn mënul tere tamit suñu gisee ne mbir sàngam bokkul ci diine bi ne lii bokkul ci diine d'accord ni ko diine amul lii donc loolu moom vraiment beneen débat la mais man jàpp naa ni du ñu war a bàyyi xel la islam diine échange la diine contradiction la diine ay uute la bi nga xam ne uute yu benn bu ci nekk dafa am base ak valeur te euh, diversité boobu dama jàpp ne richesse la c'est une richesse donc euh, la diversité est une richesse si Dieu avait voulu qu'on ait une seule pensée une seule vision une seule idéologie kon du créer sax ay xeet yu wuute kon dafay créer benn xeet ñëpp ñuul wala ñëpp xees ñëpp nekk indien wala ñëpp nekk japonais wax benn làq

loolu c'est une richesse loolu ñu ko yàq waaye na am dans l'élégance jarul jarul euh, impolitesse jarul saaga jarul wax lu ñaaw nañu limité wu à dire nos avis que lii avis bi kii wax moom la engage waaye diine waxul nangam nangam ak nangam man laa jàpp si diine parce que diine si moom mais on a des imams qui ont des contradictions imam bii ne man fii laa sukkandiku pour dis de nangam même imam bi mom ne man fi tamit laa sukkandiku tam dak na nangam ñom ñep ils ont raison donc euh, lool mom lañ ko baye xel waye premier ay ma andi suara yàlla ci wo doomu adama yi euh ci ci ci ragal yalla ak ci top yonent bi sallallahu alayhi wasallam fattaqullaha wa atiuni ay bi moy ay 150 bu suara fattaqullaha baatu taqwa moom lu leer la lu sufiyanke yi firi ak lu buur yàlla yi ak lu jullit yi man su ma sufiyanke yi wax naa ñëpp ah donc ak taqwa euh, kilifa gu mag firi na ko ci imtisaalul awaamiri wa tinaabul nawaahi fi zahiri wal baatini min xaysu yarda ay laa min xaysu tarda donc euh, topp digle yàlla yi euh, li ci man ndax mun ñu def lépp yàlla santaane on peut pas mun ñu ko fii kenn mënu ko fi Euh, donc yàlla woo ñu sax si aventure sincèrement mu ne wëcc naabul nawaahi mu ne waaye bàyyi tere yi moom ñëpp mu ngeen bàyyi lépp fi zahiri wal baatin ci lu feeñ ak si lu nëbb ni ko bàyyi si lu feeñ kese si lu nëbb ngay ngay tukki àdduna bi donc euh, lii la lii taqwa bii dañu yàlla woo taqwa euh, ku mel ni Oustaz Barham Diop ndeysaan rahimahullah kilifa gu màgg googu daan da wax daan taqwa bokkut ak xasiya donc ixshaw rabbakum ak li taqullah du benn donc euh, taqwa gën na koo yaatu ndax ragal la bu ànd ak wekk ak ànd ak yaakaar du ragal en tant que peur waaye ragal la bi nga xam ne dafa ànd ak bëggeel ndax yàlla il a besoin qu'on l'aime dañoo war a bëgg yàlla dañ ko war on doit aimer Allah du question de peur xuuxal yàlla soxlawuñu xuuxal donc euh, moo tax ma ne y a des problème a des xam ne ci conception bu gaa yu bari am ci lislaam ak ci yàlla ak ci bokkul de choses yoo xam ne gëm naa ni ay njuumte la gëm naa ni lu ñu war a waxtaanewaat la pour nit yi gën a repositionner seen seen diggante ak seen borom alors mun naa am ça va bu beaucoup de choses macha allah donc ginnaaw ragal yàlla bu te toppal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yàlla joxal nit yoo a topp kon daal le modèle sax islamique la référence kon ultime ñun xam nañ ko il s'appelle Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul ñaar amul ñett donc lii moom baax na ñu koy bàyyi xel te lii. alquran fay camper sa débat la mu ne mu àndi fi fii dafa saxal fii yàlla dafa saxal ba paré mu soko dak pourtant euh la tradition moy dak, ba paré soko saxal so setlo kalima bi ëpp solo bi xam ñu sasam na amul yonent yi moom ak yonent yu ko jitu yëpp amul ku wax li gën la ilaha illallah afdalu ma qultu ana wa nabi min qabli donc kon mom li gën ci li wax man ak yonent yep yi ma ilaha illa allah la ilaha serlo, so setlo dafa ne la ilaha dafa Ini il n'y a pas de divinité il n'y a pas de fausse divinité il n'y a pas de ngam ngam de de de dogme de de de de de de de de bla bla bla lip. Mune illa allah lumay allah donc kon dak na li nga nekul waaye saxal na illaa lii moom xarfu istisna am illaa lu dul allah yàlla saxal donc euh, kilifa bu mag dafa wax naan laa ilaha illallah mu ne nafa maalam yakun wa absata maalam yazal mu ne nafa maalam yakun dàq na li nga xam ne mënta ne mësta ne wa absata man laa yazal waaye nag saxal na li nga xam ne mësta ñàkk donc kon euh, la tradition moy dak après soo saxal mais ay bi yow dafa def le contraire kon nga xamné kon nous sommes dans un paradigme bi xamné qui est euh, qui allie le matérialisme et la terre moo ñu tambalé ci saxal soo dak dàq fattaqullaha waatiuni ragal leen yalla te ngeen topp yéen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mune wala tutiu mune bu leen top nak mune amral musrifin bu len top ay ndigalu ak ay jefu say say ak kat yi mune allazina yufsiduna fil ardi ñi xamé ñom dañuy corrompre ak di perturber di yak la terre wala yuslihun ñi nga xam ne ñoom sellaluñu ñu rafetaluñu ñu islah il ne restaure pas ñi moy ñom makissala gaay ak gaa yi mu nekk la fi nekk ñi wax ñi instant ni alquran di wax mooy ñi xamé ils sont pas dans le paradigme divin top ni yalla ak yonent bi li ñuy théoriser ak lu ñuy propager moy lu outé sax ak lu yalla ak yonent bi jangalé donc ñom ils sont dans le israf ci yaq lañ nek ba paré ñom ay ñu gis ay mufsidin lañ manam ñom ñu gis si fasaad da wax nan zahar al fasad donc euh, al fasad la nek ñu gis ci yaq manam si pervertir la terre ñu ngi daganal lu yalla téré ñu ngi téré lu yalla mayé ils ont une loi bu ñu créé bu uteeg loi wu yàlla seen loi ñom dagalal nañ sangara neen dafa permis dagalal nañu prostitution neen dafa permis dagalal nañu riba neen dafa permis dagalal nañu jeu de hasard neen dafa permis ñu ngi dàq lu yalla teural ba ci en terme de testament en terme de de de de d'hérédité en terme de mariage beaucoup de choses ñu ngi téré sax ay taxay ñu bari donc c'est un paradigme qui est contraire à l'islam. ni la 151, 152. premier pour comprendre y' a un paradigme à suivre et un paradigme qui n'est pas à suivre le paradigme à suivre il émane d'Allah et de son prophète Muhammad le paradigme à éviter tout autre paradigme quel que soit fi mu a bi déjà dàqatal nañu republicanismo positivismo euh, républicanisme euh, progressismo marxismo trotskismo trotskisme euh, classicisme matérialiste marginaliste école d'Autriche ñoom voilà Keynes les keynésiens lee nangam manaam ñii ñëpp nga xam ne li ñu tëral yàlla moom dàq ko dèjà muy benn balaa bëgg tàmbalee balaa muy ñëw si ñaareel bi fii yàlla daf ñu wax carrément li ñu war a topp ak li ñu waaye benn aaya ñëw na ci ginnaawam yematul moom si wax ne ñu war a topp ñu ñu exiger ñu agir lan aaya bi wax mu ne falaa tutiil kaafiriin mu ne topp loo ma leen bu leen topp yéeféer yi les kaafir ba nga xam ne ñoo laa loi de képp ku weddi loi yàlla bi yéeféer nga képp ku bañ a atte woo lu yàlla tëral tamit yéeféer nga ñoom il faut qu'on la yow wala yow moom topp bul topp bul topp yéeféer bi bu topp mu ne wa jaahidhum bihi jihaadan kabiran mooy te da nga ko xeex yàlla fi ñu wookoon fii o jihaad dafa dee déjà bu ñu topp le système satanique dajalique, bi est actuellement dans actuellement système de républicanisme qui est le paradigme aujourd'hui maçonnique kabbaliste bi xam aujourd'hui moi daawal àdduna ak naka lañ ci forcer pour les musulmans du monde entier nous avec une complicité déconcertante de quoi nangu de accepter sans se battre sans essayer de l'enlever mais c'est extraordinaire donc mun bul topp yéeféer bi mu ne wa way xex ko mu ne xex ko wa jaahidhum fait un effort bi jihadan, ngeli. nga kabiran Jihadan nakira la daf ko def sax à l'indéfini parce qu'on t'a pas obligé ben type de jihad on t'a donné une panoplie de possibilités Ne noo jàpp ne ko xexé pour mën ko changer waye na nekk xeex bu sérieux bu consistant bu fort bu am doole nga xex ko par waxtaan par naxante par le compromis par l'action par la politique par la violence lii yeb ben bu dafa am sa place ak son heure yàlla nag woowuñ ci violence violence moy le dernier des recours yeneen saa sax ba ñewé ñëwee euh, son sa prophétie ñewul di xex il a été obligé xex ñu ko poussé pour mu xex xeex riposte lo ci waru islam ñun islam dañu gëm ni xex jamono bu ñu si poussé ba pare joxatuñu choix la ñu mën a xeex mais tant que daal choix waruñu xeex par les armes mais dañoo war a xeex intellectuellement le jihad il est d' abord intellectuel jihad bi jihadu xam-xam la jihad bi jihadu euh, proposition la lii nag dafa def ci àdduna bi dafa am juróomi grand courant yi xam nga fa ñu dugal tous les partis islamiques ñëpp ñu wax ko islam yaa leen duggal ci cinq grands groupes. ils sont dans, dans l'islam institutionnel. Madame, islamisme institutionnel, nous avons un islamisme qui est accommodant. Nous c'est des gens qui sont, par exemple, Tunisie ou Nahda. C'est un islamisme, euh, c'est un islamisme accommodant. Nahda, origine am ak maçonnerie xam ko naa si ñëw naa si ñëw leeral ne que naaga boobu ci yoon sax elle a une origine maçonnique des loges d'Égypte yi nga xam ne euh, dañ ko euh, donc l'islam mënul accommodé wu à la fausse république qui est satanique l'islam mënul accommodé wu yoon sa soir da war a des gens vont te dire que non la montagne depuis ay siècles dégguñu islam di casse di parce que depuis ay siècles on n'a pas essayé d'organiser les pays des musulmans sont restés dans des coins et recoins de Dunsen Islam sans qu'un chien moo tax ils n'ont pas pu ni vu l'opportunité du xeex pour taxawal l'islam xam nga ne mos yi nekkoon fële ak ba nekk ils n'avaient pas vu l'opportunité du war a xeex pour taxawal l'islam seen dëkk islam fa d'autres qui étaient dans le Jolof d'autres qui étaient dans le Fouta am droit dum seen diine lu c'est neexee seen dëkk sax ñu fay dox ay charia ay canabaak yëpp mais ils n'ont pas l'opportunité de tax ni xeex ñoom seen dëkk mu ngi islam mu ngi fa sont pas acculés mais colonisation colonisation est encore que colonisation Sénégal on avait trois systèmes juridictionnels il y avait des juridictions coutumières il y y avait des juridictions islamiques il y avait des qadis, au Sénégal des juridictions euh, occidentales c'était pour des

bi mu créé woon maanaam les les tirailleurs donc moom demoon na sax ba dafa doon waatloo jullit yi si alxuraan fayda dootee pas musulman mais dafa doon waatloo si si alxuraan parce que dafa ne ñu gëm laay war a fii kan moo fi waatee fii président sax bu dugg en fonction waatul si alxuraan te ñun sax alxuraan waruñu ko waatee suñu diine waxul ñuy waat ci alxuraan ndax dëgg yàlla waaye fii diine bi sax dëkk bi sax gëmul alxuraan àtte woowuñu alxuraan. boo demee tribunal fekk le juge toog du ubbi alxuraan li muy ubbi mooy le code pénal le code de procédure pénale téye dossier bi donc euh, moo tax juge yi amu si kenn si ñoom ku mokkal tout le code pénal ni tout le code code ñëpp koy teg di ubbi di lire ñoom ñëpp sans exception donc euh, loolu dañ si ñëwaat ci islam la la ci wax ak lañ ci bëgg a def ñun am na ñoo xam ne ñoo yaakaar ñoo bëgg force dëkk bi yëpp charia islam non non c'est pas notre vocation c'est si ñëw léegi incha allah Bon, à côté d'un islamisme d'accommodation un islamisme institutionnel il y a un autre islamisme un islamisme d'opposition là. la ils sont dans la dissidence Vous avez si parti du Maroc la justice et justice et euh, JDB parti ils sont parti d'opposition la parti dissidence donc euh, islamisme est un l'islamisme islamisme il y a des pays qui circonstances ils ont développé cette forme d'islamisme. il y a un troisième type d'islamisme service l'islamisme hybride comme ce que fait la Hamas au niveau du Palestine Il y a des conciliations mais il y a des techniques violence. Il y a y a de la violence il y violences des revendication revendications ci Il élection euh, gëm dafa war dem au suffrage Il y a des élections texte yi moo tere sax ni képp ku sukkandiku ci islam amoo droit bokk xam nga kon dëkk yooyu mënu ñàkk nekk ay dissidents kon en réalité la dissidence a été créée par l' dans les textes d' une écrasante majorité bi xam ne ñoo jàpp ni islam yoon sukkandiku ñoom donc lu jar a bàyyi xel la mu am ñeenteel courant bi xam ne c' est un islamisme pacifique li tu vas retrouver beaucoup plus en Europe ou ce sont des ay terres la yoo xam ne terre tappalekat la fofu foofu lislaam dafa tumuranke wax deug yalla fofu ñemel ñu islam ndax dëkku say say la donc euh, il y a des revendications très maigres pour revendique que c'est ay quelques droits minimum pour jullit yi ñun ñoo faté nañu may droit yi def nangam pour ñu am juma donc lii c'est benn ben islamisme la bi xam islamisme pacifique lañ koy am un cinquième courant bi xam wax l'islamisme radical donc ñu melni al qaida ils sont dans islamisme là ils sont violents islam est une technique de subversion en réalité. Ça a été créé hors l'islam. Il a créé génnul Seya. donc après il ni a xóotal la subversion dans la religion musulmane ba créé ay mouvement yi mouvement ils se réclament l'islam et ils agissent contre les principes et les règles de l'islam ils ont créé sax ay courants comme le wahhabisme Abdul Wahhab le wahhabisme est un courant qui qui est contre l'islam en réalité il est intolérant il est il est grave je ne parle pas de la salafia Il ils se reconnaissent au salaf salih ñooñu donc le salaf salafu salih tu reconnais reconnaître tu es dans la dans l'islam mais au ak li mu qui yëpp ci principe ci takfir ci beaucoup de choses il y a ne wax dëgg yàlla ba pare sax ak qu'on connaît du judaïsme donc euh, les juifs ils ko créé en réalité donc les juifs ils ont une histoire xam nga il y a un paradigme qui est là qui est un paradigme euh, aujourd'hui maçonnique mais le paradigme il est kabbalistique et messianique même en réalité lu tax ma wax loolu xam nga tout qui a démarrer ci judaïsme maanaam ci pour yahut pour ñu que tawret na yalla dimbali ma may ma chance ma jang ko pour ñu jang tawret dafa am tawret bi wax la Torah Beria la Torah Beria Torah Beria moy la moy la Torah de la création moy Torah bi am ni actuellement ci àdduna bi mooy Torah bi xamé ki don la Genèse jàngale lan moy na yalla na la créer nangam ak nangam Euh, beaucoup de choses Nous, les juifs nous sommes xiyaam comme ni sommes ko gëmee ñun ñun jullit yi ak chrétien yi ni yomal xiyaam am na gëmuñ ni àtte du safara nyam gëmuñu ko c' bi li ni wax nii c' est grave ñu bëri xamuñu ko nag ñoom pas dans la Torah li ñu gëm le jardin sax bi yàlla yàlla ñu jàngal si alxuraan

ay figurant lañ figurant lañ figurant figurant la vision juive nak dafa wax ni le messie juif bo dee à la fin des temps pour organiser wat dëkk bi ñu nek ci natangi di bégee nek fële booru Tigre ak frère. il va abolir la Torah Beria moy Torah bi daw ni actuellement fay abolir toutes les lois bu ci da koy dindi pour andi Torah bu la Torah Zilut Torah Zilut la war a bi nga il doit y avoir euh, lu bess li nak mo andi beaucoup de mbir yu am ci àdduna bi fi la tambalé dafa am ay courant yu gëm ni konka messi bobu ñëwul pour ñu accélérer ñëw messi bi dañoo abolir ñun la Torah Beria rek dañoo wara inciter kon lepp luy moy ak débauche ak yaq dañ ko wara inciter créer le kaw pour que le messie gaaw a ñëw pour ñu mën a dem ñun delluwaat suñu paradis les courants sabbatéistes fa la juddu sabataay Lévi xaw ma na xam ngeen ko euh, les courant franquistes ñoo Jacob Frank xaw ma xam ngeen ko qui c'est un sax un héritier de sabataay Lévi Jacob Frank bokk na si xam ne ñoo inspiré ñu bëri ñi nga xam ne euh, ñii ñoo nekkoon les juifs yu donne ñëw sax di chrétien chrétien en Europe pour influencer les écritures chrétiennes Ni ñu ñu en Europe suñuy wax Jacob Frank Pourquoi bu ko wax wax son son inséparable ki nga xam ne mooy moi, moi, moi, mën a waxee mooy wax Junius Frey mooy Moses Dobruschka Moses Frey révolution française bi taxawal république yi sax ñoom ñoo ko liggéey ndax le jacobinisme en Europe les jacobins le jacobinisme a été l'antichambre de préparation et de conduite de ce qu'on appelle la révolution en France Le jacobinisme nous ñu porté nous avons c'est des anciens yéhouts avec des francs-maçons sans exception kenn qui ci nous ils étaient ouvertement anticlérical anti diine ci xalaat dafa a créer lenn li nga xam ni ñoo xalaat ce qu'on appelle la république ni ñoo xalaat la religion qu'on doit donner à la république ndax un gouvernement doit avoir une religion boo religion du taxaw lu yàgg donc et ils voulaient pas que la république soit chrétienne donc ils ont voulu créer une religion qu'ils ont appelée la laïcité loolu naa si ñëw dinaa ñëw laïcité moom mënumaa ñàkk ñëw laïcité parce que ñu bëri man dama gis ñu bëri ma koy laaj ma xam ni gars yu bëri ils comprennent pas ce que c'est que la laïcité dans ces pays-là. Bon, euh, lu euh, excusez-moi ma jël il y a du franquisme ak du ak euh, du sabbatéisme ak du messianisme juif qui est un moment de créer aujourd'hui des républiques. li soo seetee euh, benn loge bi xam ne loge boobu mooy loge bu ko gën a mettre en en œuvre parce que loge bi xam ne moo njëkk boole yahut yi ak chrétiens yi ci benn même loge pour ñu xaatam doo ñoom ñëpp nga xam ne d'accord ñu ci église du muy doxee d'accord ñu ci yàlla ni mu muy doxee ci kaw suuf yi dañoo war a dindi yàlla loge boobu Julius Frey moo ko créé ki mu neex sànq ne la jacobiste la mu tuddewoon cette loge là l'ordre des frères de Saint Jean l'évangéliste d'Asie et d'Europe ni déjà soo gisee assez courbe rek nga xam ni kon euh, la jonction en ce qu'on appelle le mouvement judéo-chrétien a eu lieu ñu doon saboter diine en réalité ñii ñoo taxawal ce qu'on appelle la république vraiment su ma déggee sax ñu ko république je suis républicain damay tiit dans en Europe surtout avec la troisième république nga xam ne ñoom Jules Ferry ku ne je suis républicain dafa bëgg je suis franc-maçon en réalité ñoom ñëpp.

dina day gars gars sont bon je ma dagg fii comme l'introduction je pense que c'est mieux euh, la prochaine fois nous allons revenir au fond sur euh, le passage de mais avant le dugg passage naa rek une parenthèse pour andi de comment la maçonnerie a organisé les sociétés modernes et comment la maçonnerie a un agenda un programme bi nga xam ne euh, pour jéem a dindi lépp luy diine ci kaw suuf lii moom vraiment lu am sol la nga xam ne jàpp naa war nañ koo xam ñëpp war nañ koo bàyyi xel pour mën a comprendre naka la les religions monothéistes nekkee en danger euh, religion yi bëri yàq nañ ko pare naa tudd lu mel ni le zoroastrisme parce que y a des pratiques yoo xam ne euh, li may wax nii sànq léegi ci saay-saay yoo xam ne.

c'est la pensée même euh, c'est l'action centrale c'est le principe du zoroastrisme qui était une religion ancienne qui à Zoro Zarathustra euh, et que dans cette religion là religion d'opposition religion d'opposition il y a un dieu bu mag bi nga xam ne kooku la ñuy wax ñoom bu mag bi kooku yalla bu baax bi Ahura Mazda moo tax gars yi sax religion ñu koy wax le mazdéisme ak benn yàlla bi xam mooy ahriman euh, yàlla boobu mooy un démiurge l'idée idée wu gnostique les gnostiques du premier siècle euh, Jésus-Christ la gnose bi nga xam ne dañoo jàpp ni il y a deux dieux il y a un dieu inaccessible yàlla bu baax la bu sori ak un dieu bi nga xam ne méchant bi nga xam moom moo sàq nit yi moom ay gars ñun nous que des émanations de ce dieu là kooku ñu wax la démiurge cette gnose là mo irrigué dem na dugg si biir christianisme laal ko soppi ko so demee si christianisme la scolastique ak lépp si àndandoo ñoom euh, Jean Pic wala boog Jean Pic de la Mirandole bi nga mom ne moom taalibe Flavius euh, Mithridate la du la taalibe sax ñoom ñaar ay góor jigéen ñaar ñoom ñoom tëddandoo ñoom ñaar ni c'est les juifs yi xamé ñoo ñëw tuub tuub dugg ci bir christianisme ils ont apporté des sciences des connaissances ils ont dem nañ ba nekk ay évêques nekk ay kilifa ci biir christianisme di doxal ay prêtres di doxal ay ay ay ay rites di def ay prêches dem bay jàngale ci université yi xam chrétienne la woon donc euh, Flavius euh, Mithridate juif la et et une était homosexuel donc euh, ñii nii ñoo dugg avec des pratiques yoo xam ne maa ngi wax li zoroastisme zoroastisme boobu dañ ko dañ ko yàq ils ont sax ñoom un livre qu'ils appellent Avesta donc sen diine bi sen sen principe bi dafa am ñetti baat yoo ko gëm ñoom dañ ko tegg ci ñett moy khumata ukhta ak uvashta moy wax lu baax def lu baax faat lu baax li tok na dégg be sëñ bi xam dafay ne moom taayam bi ñii kese la leen def lu baax wax lu baax xalat lu baax mom moy moy jangalem moy lu dund nangam ak nangam ba pare na jox len micro bi maître de cérémonie MC bi maître de cérémonie maître de cérémonie je rappelle toujours que c'est maçonnique le maître de cérémonie le MC mais MC euh, su ma gisee si c'est un gars, moi, ça gagne qui est maître de cérémonie bi damay tiit parce que le maître de cérémonie est un officier dans la loge mooy l'officier bien nga xam ne képp kuy jël parole moi, la war a orienté mooy gunge gars yi tam ñëpp ñoo la dans la loge Lui, c'est maçonnique li warul woon sax dugg suñu biir ay gàmm ak ay màggal mais y a yi def ay cérémonie officielle cérémonies cérémonie nangamak, mais cérémonies de cérémonie baa micro central c'est que nous avons di di glisser vers le paradigme bi nga xam de l'extérieur et on l'a pas interrogé ni questionné Nous ko appliqué. ko appliquer Et man c'est pas normal c'est pas digne en tout cas ay borom donc il euh, y a eu des religions beaucoup de religions yoo xam ne la même chose ba ci Max dit la même chose que, les, que, la gnose. Max, li mu cette guerre là entre deux mondes entre un démiurge et un dieu lointain Max, mon si lu yahut le juif là. donc euh, Karl Marx a irrigué beaucoup de pensées dans ce monde là Karl Marx théorise sax une grande guerre qui doit opposer deux groupes les prolétaires et les bourgeois Nous réintégrer, après voilà après rétablir comme le messianisme juif hein ma rétablir un monde de nga avant le capitalisme moi comme le juif il wax rek un monde de nga dans la Mésopotamie avant euh, perturbation donc le messianisme juif est présent dans beaucoup de courants aujourd'hui yi avons une force ñu koy forcer dit que nous bi ay juif sax ñu ngi taxaw di ko euh, en culture et en histoire buñ ko xamoon duñ on a quelque chose de plus pur de plus parfait lu li xamé moy mu ci borom bi subhanahu wa taala borom bi xamé mo né won euh réformer la terre donc yéen ni nit ñi bu leen bu leen yàqaat suuf bi ginnaaw mu ko défaré pare donc mais machallah dama melni mel nañ ci gën yaatal nañ ci gën bayam bàyyi ma dagg ko fi bala ñi gëna guddé di muy gëna a di gëna a sonal gars yi en essence li moo nekkoon un peu l'introduction bi bu ko andi par rapport à l'islam politique islam siyasi euh, on aura encore une épisode, yeneen quatre épisodes il y a incha allah buñ ci la pensée islamique la pensée politique de l'islam la l'ère l'islam est un tout l'islam est une civilisation l'islam euh, dafa andi aussi bien une vision politique un mode de gouvernance à l'échelle même mondiale ndax l'islam de euh, dëgg y a ci de, dëkk te tënkul dëkk donc on va l'étendre incha allah leeral après soo ko a nag l'économie islamique en tant que tel ça islamia on a finance islamique ben partie bu ndaw la ci donc euh, on parle là de monnaie en islam on parle là de change en islam on parle là de fiscalité en islam euh, on parle là de réforme judiciaire aujourd'hui on parle de justice justice waaye man lam y a alxuraan daf ñu wax lu leer moom képp kuy attewoo ci lu dul lu donc euh, ndax ñun obtenir opté nekk ay à nous de répondre à cette question là ndax ñun dañoo doyloo li yàlla wàccee si ñun à di répondre tamit ba tey ndax ñun dañoo jàpp lu yàlla wàccee lu nit andi moo ko gën c'est à nous tamit de voir ba tey waaye li ma gëm rek te xam ko mooy yàlla nërtërloo wuñu te yàlla toogloo wuñu li daal mooy li nga xam ne daal xam naa ko ci islam maa ngi gis temps yi ay wax yu bëri am koy xool barki déew na ma gis sam benn xarit bi xam ne dafa bind benn post post bi dafa dañoo toog condamné injustice bi ñu teg Ousmane Sonko moom mooy du ci wax muy prétexte am nee na am na injustice bu gën a ngand bi xam ne ñu ngi koy teg ñun yàlla si kaw suuf fii fii Sénégal parce que euh, bokkaale baa ngi fi gars yi waxuñu suñuy wax ay waxu ay waxu politique kon nag lii amalgame la ak ñàkk compréhension ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu nekkee màq moom bokkaale baa ngi fa woon yonent bi jékki-jékki dindi bokkaale bi. dafa nekkoon di jéem a defar société bi yonent bi ba mu demee Médine nga xam ne rapport de force bi nekkul à la faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam bokkaale mu ngi ci diggu Kaaba gi Kaaba gi y avait trois cent soixante idoles dans la Kaaba pourtant jullit yi Kaaba gañ doon jublu yonent bi waxul na dañ dem toji Kaaba gi doon ko toji idoles yi non il l'a pas dit génnewul islam dafa ne gars yi kon leen julli ñu jublu ci Kaaba gi ñuy defar société bi medine ku xam medine xamné nga wacc pour défaire l'État. état et son médinoise les sourates là sont médinoises les sourates mecquoises parlent beaucoup plus de tawhid ci ragal yalla ci magal yalla ci yalla mais les sourates médinoises ont beaucoup plus organisé une communauté une société chaque fois ma fàttali gars yi leen am na benn téere wax Nahjul balagh duma wax ni lepp dëgg la way amna su si xamé ay waxu sidna Ali la karamallahu am ci benn lettre bi nga xam ne lettre bu mu envoyé Malik al Ashtar euh, Ibn al Ashtar euh, lettre boobu les fondements de ce qu'on appelle l'état la politique de l'islam mu ngi ci biir ndax conseil bu ko euh, li mu ko wax ni mu war a jëfee maanaam les axes les grands axes de l'état ci moom mu ci biir lettre boobu benn lettre bu kese rek leen ay état ci wàllu islam donc pour dire que rek macha allah. on aura le temps de en profondeur de voir l'enseignement du prophète, de voir les principes contenus dans le Coran, de voir l'opérationnalisation de ces versets-là à travers les âges, et surtout ici au Sénégal, euh, surtout avec Mabon, euh, Masha'Allah, moi qui c'était le trait d'union en réalité donc euh, euh, au siècle par rapport aux problèmes que nous avons aujourd'hui et les problèmes sont toujours les mêmes. On a un problème d'équité, on a un problème de justice dans ce pays, on a un problème de vérité, on a un problème de prospérité. Les gens ils sont ils yi euh, donc euh, les mêmes problèmes là mon nekk ci Quelle est la solution d'Allah subhanahu wa taala par rapport à la situation dans laquelle nous vivons donc euh, képp est la solution tu es interpellé. gëm nak ni yalla amu solution ba ko wax yalla ko ko waxuma ak moom ko sonlu ma ko wax deug yalla toñu mako tamit bayina ko ci xalam mais ma sha allah ziar nañ ñëpp nag bàyyi ma ko fi ba semaine prochaine té fokk na am ko def deug chaque mardi tudé ko les mardi de mabba na naa su ma defee loolu mooy comme ça ma xaw a mabba na damay faté mabba xeexkat la won da yaron jaasi yor fétal di wajal révolution man nak ci xagum la tax fa tax taxaw instant yi dama taxaw tem ci xex la bëgg dem ci révolution la bëgg dem ci ñu soppi mbir yi euh, exclure mo ben moyen donc pour arriver à cela yalla yalla dimbali defal ñu tawfiq féex ba mu pacifique inshallah rabbi donc euh, yalla yalla defal sutura defal ñu yiw yalla barkel rew mi yalla wacc fi jamm yalla sam ñëpp te samale ñëpp inshallah donc euh, ñu ngi rafetlu teewaay bi wax dëgg yalla ñëpp di si jiital soxna Aïcha Euh, la grande coach euh, des lives di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi woon ci live ñoom papi maa gis papi depuis le début bougé wul le grand soufi borom jawaayirul maani donc euh, di ziare gars yi di saan macha allah yi ñëpp donc xam naa ne on va s'organiser ba live bi commencé at bëri ndax gis naa y a des yi nga xam ne thématique yu thématique u télé télé yi yenn xam-xam yi sax bëgguñu ko donc on aura de live yi nga xam ne dañ mën a développer en profondeur surtout lu laal l'islam ndax jullit yi dañoo war xam bu baax la lu ñu am tant que xamuñu lu ñu am ils seront pas libérés et dañu neub lu bëri bëri ci diine bi nga xamé motax gaay tax gars yi ba tey ñu tënkuñu bu gaay yi xamé li xew rek ma sha allah dinké ko dafay am par force dinké ko day am te dinké ko dañu jëm liggéey ah insha allah yàlla si yalla dimbali waaw met lenin euh, depuis la Mauritanie ah Mauritanie ma ngi leen di ziar fofu moom jé sama sëriñ mu ngi fofu euh jagana donc euh, ñoom ñep wa wa kaydi donc euh, Babacar Sadikh maa ngi lay ziar bu baax a baax donc euh, Alassane Bari ñu ngi leen di bëggee lu bëree bëri di kontaan si ñëpp di ziar ñëpp nag di ñaanal yàlla ñëpp tamit yàlla def doolu ñu sutura doolu ñu jàmm doolu ñu yiw euh, defal ñu tawféex donc ah Babacar Sadikh il faut nga dabu delluwaatal au début waaw delluwaatal au début nga xool si sinon yeneen carte yi di ñëw dem nga xaw a doo xaw a gis bu baax la fil conducteur donc macha allah. e Moustapha Kane waa ah, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaye eh, Ibrahim waaw ah, Ibrahima Fall dafa mel sama sëriñ yëpp a ngi fi de sama sëriñ yu mag yi man mais Barham gisuma fi Barham de ma ni Barham dafa dem moom donc euh, ñoom Saliou maa ngi ziar gars yi donc euh, ñoom Pape Moussa macha allah di nuyu ñëpp maarifa tam nga xamante ne gisuma ko fi a xam naa kon tey mu ngi nelaw ndax suba nag jour ouvrable la.

maa defa nelaw na ah papi da ngay da ngay kaañoo maa dafa maa dafa du nelaw de dafay dóor ay dog saa day yëngal ay mbir saa day yéeg ci ci kaw a kaw di wàcc <laughs> macha allah mais kontaan naa ci wax dëgg yàlla ziar naa ni waaye sama gars yi donc prenez bien soin de vous euh, yàlla yàlla sàmm leen dëgëral leen donc asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa